أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey nu toll ci suratu nisa ñuy jël bi iznillahi tabaraka wa taala ñetti aaya aye 74 75 76 mu nekk ñetti aaya yu ñu borom bi di jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy fardiyatul qitaal fi sabilillah ñu war a xam ñun ñëpp farataal gi yàlla farataal ci ñun xeex ci yoonam mbokk yi ndeke xeex ci yoonu yàlla ndeke farata la ndeke ni ñuy wooree di jullee di joxe azaka di aji màkka di góor góorlu ci farata yi ndeke am na farata bu rëy bu nu bàyyi te mooy xeex ci yoonu yàlla tabaraka wa taala waaye lan moo tax nuy xeex ci yoonu yàlla lan moo tax yàlla sant julli di ne nañu xare mooy li ko waral li ajli inqaazi almustad'ifin min almuminin ngir dañoo am ay mbokki julit yoo xam ne ci àddina bi nu ngi leen di noot di leen néewal doole di leen noggatu léeg-léeg mbir mu egg sax ci ñu rey leen léeg-léeg mbir mu egg ci ñu nangu seeni kër ak seeni dëkkuwaay ndeket ndeket lii moo waral xeex ci islaam jullit ñi nekk ñu rek ñu gàddu seeni fas wala gàddu seeni jaasi wala jël seeni ngànnaay di xeex ak noonu yàlla yi ay yàlla moo leen ko sant ndeket jihaad farata la fardiyatul qitaal fi sabilillah wa li ajli inqaazi almustad'ifin li ko waral mooy ngir nu mën a sauver ñu néew doole ñi su fekkee nit ñi dañ doon wax ne xeex ci yoonu yàlla fardul kifaaya la loolu de nekkul texte bu dëgër xeex farata la fardul ayn la kañ la nekk fardul kifaaya mooy su fekkee ñëpp jóg nañ di dem xeexi kon su amee ay jullit yi des mën na noo toog amma jullit yëpp tey yàccaaral comme adduna bi su boobaa nun ñëpp dañuy am bakkaar mu neen dañoo war a dem sëfe ji ndeysaan démb xam ngeen xiyaamul leyl bi imaam bi bu muy ñaan ñi fi jullee dégg ngeen ci xutbaam ci ñaanam ndeysaan mu naan balaa nuy faatu yal na nu yàlla xéewal ñu julli masjidul aqsa ñaari rakk xoolal tey bu julli di demee ba masjidul aqsa tëleen waxuma mu tëleen waaye dem fa sax tëleen dem leen dem fa rek tëleen ticc waxuma sax dem fa tëleen mais julli fa sax tëleen julli ñaari raaka rek tëleen masjidul aqsa te mu nekk ñetteelu mosquée ci islam xam ne kon war nañu xoolaat suñu bopp dëgg-dëgg jullit yi képp kuy julli te war ngaa xoolaat sa bopp parce que dëgg-dëgg yow yaa ngi ngëm loolu ñun ñëpp la jullit yu weex yeeg yu ñuul yeeg yi am ak yi ñàkk ak yi xam yi xamul ñëpp la su ko defee inqaaz almustadifin min almuminin nusratun lilhaq wa ibtaalan lilbatil loolu ki koy def daf koy def ngir lan nusratun lilhaq ngir dimbali dëgg wa ibtaalan lilbatil ngir neenal neen mbokk yi xeexuñu ngir sunu bànneexi bakkan xeexuñu ngir wane ne ñun ay jàmbaar lan xeexuñu ngir wane ne danoo bëgg ñu ne xool leen jullit yi waaye dañuy xeex ngir lan li inqaazi almustadifin pour libérer ñu néew doole ñi waaye ngir dimbali dëgg ak neenal neen ndeke lii moo indi xeex bi loolu bokk na ci dañuy jàng tey waxoon naa leen démb ne ay yu nekk di jàng saar bi nu toll peut-être kenn mun na ñëw fekk tafsir bi démb ak tey mu yem ci ne ay aaya yuy wax ci xeex la ñuy jàng mu jàpp ne dañoo bëgg a terroriser nit ñi pour ñu génn nekk di nekk ay rebelle di xeex ah kay loolu lañ bëgg de amul sax weddi danoo bëgg ñun ñëpp ñu am pas-pas bis bu lislaam di am ndam Sénégal fekk ñun ci lañ bokk bis bu nee ni ñëw leen ñu xeex yi ak noonu yàlla yeeg yahud yeeg nasaraan yi ñun ñëpp ñu takku kenn ci ñun bana bañ a tardé mu def ko programme ci boppam mu waajal ko ndax yonent bi nee na képp ku faatu programme mu jihaad dee ci yoonu yàlla nekk sa bopp yow ceddo nga kenn ku nekk ci ñun ku faatu dee ci yoonu yàlla nekkul ci sa bopp yow ceddo nga yonent bi nag moo ko wax ceddo nga ceddo ceddo mooy ku dee ci jaahiliya kon bu yeboo ci ñun ñu préparé ko mu nekk suñu bopp bis bu nu islaam soxlaa rek du nu tàggoo fu mu nu fekk foofu la ñuy wiiri rek dem xam ne yàlla moo ñu soxla mbokk yi ñaareel bokk na ci li ñuy jàng mooy almuqaatil fi sabilillah baa ad dunya képp kuy xeex ci yoonu yàlla jaay nga àdduna xanaa bàyyi nga àdduna àdduna yitteelatu la àdduna ñoratu la defatoo àddina kër defatoo àdduna dëkkuwaay wan nga ko ginnaaw yow mi nga xam ne danga dem xare ji ci yoonu yàlla tabaraka wa taala wataada anha lil axira képp koo xam ne danga dem xar xare ji ci yoonu yàlla bàyyi nga àdduna waaye jublu nga àllaaxira tànn nga wane nga li nga bëgg wane nga ne àllaaxira moo la gënal àddina wane ne ne yow àdduna waxoo ci dara waaye kook waajooju mbokk boobu bàyyi àdduna wala ni'mal bay waay waay waay waay jaay bi mu jaay moo am bénéfice da ngeen dégg ci alxuraan ci suratul baqara yàlla naan ñi bàyyi àllaaxira jël àdduna ñi bëgg àdduna bàyyi àllaaxira yàlla nee na fama rabihat tijaratuhum wa ma kaanu muhtadin ñooñu de seen commerce amul bénéfice dañ doon jaay lamb na ndax ku bàyyi àdduna jël ku bàyyi àllaaxira jël àdduna yow amoo com am sa commerce bi amul bénéfice lan moo tax comparé leen diggante àdduna ak àllaaxira àdduna loo fi yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg après da ngay da ngay dee alaxira nag amul dee kon boo jëlee luy jeex nga jënde ko lu dul jeex yow da ngaa perte gaa yi nee nañ waa ji nga xam ne ci àddina sombi lay lekk sombi bu amul soow amul suukar bu waree ba ngoon moom lay dogoo mu dem alaaxira di lekk sombi boobu moo gën ginaari àdduna àddina bu fekkee bis boo xëyee bi nga juddoo ba bi ngay dee bis boo xëyee ginaar ngay añee moom ngay reeree moom ngay ndékkee ginaar yooyu bis dina ñëw ah mu dakk mu jeex takk amma alaxira nag lekk bi du jeex looloo tax alxuraan naan ñu bal tusiruuna alxayata addunia wal axiratu xayrun wa abqa waaye yéen de àdduna ngeen gëm àdduna ngeen bëgg àdduna ngeen gënal bal tusiruun àdduna ngeen gënal xanaa xamu leen ne àllaaxira gële ngeen di dégg moo gën te moo gën a des parce que du jeex kon luy jeex bu ko jënde lu dul jeex ki jaay àdduna nag bàyyi àdduna jublu yàlla jël àllaaxira kooku nee nañ bénéfice am bëri na kooku am na bénéfice waa jooju la wala neexmal bay kooku jaay bi mu jaay kooku jaay na jaay bu am bénéfice mbokk yi ak a neexoon ñu xam ci li nekk ci yoonu yàlla tabaraka wa taala xeex ci yoonu yàlla li ci nekk looloo tax ñi ko xamoon léeg-léeg sax nga dégg ci Sénégal ñu tagg ay nit ñu ne ñooñu dañoo woote te xeexuñu te ñu am ay ay nit waaw ñoom diw de biñ fi ñëwee ci réew mi ñoom dañ fee samp diine te xeexuñu léeg-léeg nga dégg ko ñoom dañoo woote ñu wuyu leen xeexuñu moo tax la ñu woote jubut moo tax la ñu woote bari sirk bari bidaa bari bokkaale c'est parce que yonent bi li ko yàlla waxoon mooy dëgg yonent bi moom dafa xeex waxuma benn xeex de waxuma ñaar waxuma ñett waxuma ñeent waxuma juróom waxuma fukki xeex waxuma loolu dama ne yonent bi dafa xeex ay xeex dafa xare formé ay giriya sallallahu alayhi wa sallam ñu damm bëñam xuri ay óomam rey ay saxaabaam te keneen mënul ñëw ginnaaw yonent bi ku fi indi lu gën a baax lu fi yonent bi indi woon te keneen ku ñëw ginnaaw yonent bi amoo droit woote su dul nga toppaloo nit ñi ci li yonent bi doon woote boo fi ñëwee nag nga woon nit ñi ci leneen moo tax la nga nekk du baax nañ ñi ci nekk du ñu baax kenn mënut a baax te dundoo alxuraan ak sunna mënul nekk yonent bi nee na man ibtaxa alhuda bi xayrihi adallahu llah képp ku bëgg a baax te da ngay bàyyi alxuraan doo baax da ngay réer xool leen àddina bi rek tey xool leen Sénégal ñu bëri ñu ngi ci diine ñu bëri ñu ngi ci mbirum diine naan ci diine lañ nekk di bëgg a baax di góorgóorlu waaye du ñu baax mu lu tax ndax dañoo bàyyi yoon wi kon bu mu bëggee baax dañuy jaar fa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaaroon fa mu jaarale woon saxaaba yi waxuma la moom kese mu xeex waaye saxaabaam yi mu yaroon sax dañoo xeex ñoom ñëpp bal ñu ci ëpp ci ñoom ci xare lañ leen rey parce que yàlla moo leen ko sant te danañ gis léegi aaya bi ci kanam ñetteel mooy almujahid ya ubbu bi aazami safaqa sawaun qutila aw intasara wa xuliba wa hiya aljanna mbokk yi ki xeex ci yoon yàlla almujahid ki takku di xare ci yoonu yàlla kooku day li mu am li mu làq ci ay ngëneel kenn xamul nu mu toll li mu làq ci daraja li mu am ci tiyaaba kenn xamul nu mu toll moo xam nag rey nañ ko moo xam moo gañe moo xam dañ ko rey mu dugg aljanna ñu bari ci ñun léeg-léeg ñu dégg diw de dañ ko rey gars yi ne lan moo tax ñu rey ko ñu ne dafa wax laa ilaha illallah rek ñu rey ko ñu ne si waru ko woon wax mënoon naa négocier rek ba génn ci ndeysaan sahidul islam sahid xud keroog bañ koy rey di ko pendre dañ koy indil ay proposition ñu ne ko buur bi ne ko président de la république bi ne ko dañoo bëgg rek nga wax da ngaa juum li nga doon wax yépp da ngaa juum nga baalu ñu baal la su ko defee ñu def la ministre mu ne ñaari mbir lay tontu su fekkee maa nekkoon ci dëgg jarul ma leen di wax baal leen ma su fekkee yéen yéen nekk ci dëgg kon jarul may baalu yéen seen dëgg jàpp leen ci ma jàpp ci sama dëgg mu ne beneen bi seen ministre boobu ngeen wax ni ngeen may def sama baaraam bi di joxoñ di taaya nga xam ne bu ma jullee ba bala may sëlmal damay taaya baaraam bi di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah maa ngi ndigal ne baaraam bi du jàppal état laïque bi di ko signeel baaraam bi du signeel du jàpp big ci état laïque état boo xam ne dundul islam di ko signeel mukk ci àdduna moo tax dina jommal nit ñi dina jaaxal nit ñi léeg-léeg nga dégg ay borom xam-xam naan kooku du woon du woon ab sunnit wala du woon wala du woon wala du woon wala du woon ndeysaan en tout cas li mu ñeme def ñi am tawhid tey ñeme wuñ ko li mu ñeme woon def ba dee ba ñu rey ko te mu amunoon génn ak li mu daj ci coono ñi am tawhid tey genn wàll gépp ñeme wuñ ko ñu ci ëpp ñu ngi toog ci keppaaru gouvernement yi di naan ndox mu sedd di naan café ak di lekk tàndarma ak di recevoir ay bulletins yu dul yu duun ci alal moom nag yàlla dimbali woon na ko ba mu rëcc ci yooyu nga xam ne ci jamono proposé woon nañ ko waaye mu tànn yàlla loolu moo tax guddi gi ñu koy rey dafa gént sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam war fas bu weex sol yére yu weex kaalawu kaala bu weex ñëw fekk ci kaso bi mu toog mu jóg ne ko waral yaa sahid hani an laka bi sahaada da ngay martir guddi gi tey jógal jógal nga war fas wi nga war ci sama ginnaaw ay minute lañ ci teg ñu fëgg kaso biñ ko denc mu ubbi gaa yi mu yërlu fekk garde yi la gaa yi ubbi bunt bi mu ne fu ngeen ma jëme ñu ne dañ lay changer cellule mu ne c'est vrai da ngeen may changer cellule àdduna ila sijinil jannatil firdaws ñu ne ko noo ko xamee mu ne maag yonante bi ñoo nekkandoo woon léegi te nee na ma hani an bi shahada ya sahid kon ndeke mbir yi du lu ndaw de ñun ñoo ko xeeb waaye mbiru diine dara tuutiwu ci foo mën a nekk ci kaw suuf nga jaayanteeg sa borom nga wéral sa pas-pas yàllaa ko yonent gënal la lu dul yàllaa ko yonent wallahi alazim li gaa yi njëkk yi amoon di nga ko am wallahi bu nu melee nii nu mel rek dañoo góorgóorluwul dañoo dañoo dañoo jógul wallahi bu sunu pas-pas wéree ci yàlla ñu dëggu ci sunu borom wallahi li sahaaba yeeg yonent yi amoon danañ ko am waaye nag ariditum bil xayaati dunia min al axira fa ma mataau l xayaati dunia min al axira illa qalil ñëpp ci ñun man ak yéen yëpp a yem adduna moo nu ñor adduna rek moo nu ñor moo tax mënuñu dem ci yàlla mënuñu yegg adduna moo nu ñor moo tax adduna ferenkulaay ci sunu xol yi moo ñu baare moo nu baare ba mënuñoo yegg ci sunu borom waaye wallahi ay nit a ngi rëcc di dem ci seen borom ay borom yi pas-pas yu wér këng yoo xam ne àdduna alal jigéen pas-pas ndomba tànk mënu leen a delloo ba tey ji mu ngi am ci àddina bi waaye nag dañoo war a góorgóorlu pour yàlla boole ñu ci ñooñu mbokk yi ki takku di xeex ci yoonu yàlla moo xam rey nañ ko moo xam am na ndam te ñun li ñu xamul ci xeex ci yoonu yàlla mooy ki xeex ci yoonu yàlla amul défaite moo xam dafa gañe moo xam dañ ko gañe dafa gañe mooy lan li mu bëggoon doon ko xare am na fexe na ba islam gouverné est-ce que gañe na li ngeen yaakaar ne dañ ko gañe mooy lan dañ ko rey alquran sax daf ñoo wax ay aaya wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadli yàlla nee na bu leen yaakaar ne ñi ñi rey ngeen di seen nii ñu dóor leen bal wala ñu dagg seen bopp ah deret ji di tuuru di walangaan ngeen yaakaar ne ñii dañoo dee deewuñ de bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun ñu ngi dund ci seen borom ña nga leen di wërsëgal ña ngay dund yemuñ ci waaye ñu ngay kontaan ci xéewal yi leen yàlla indil ah ndeke kon kuy xeex ci yoonu yàlla yow doo perte soo amee ndam doo perte soo ñàkkee ndam doo perte te dafa neex nag am na saxaaba boo xam ne dañoo fëqoon bëtam lan la ñu fëqi bët bi maanaam waa Màkka yépp jamono bi lislaam di tàmbali ku amul ku la garanti gars yi dañ lay dóor ku amul kilifa boo xam ne yaa ngi làqatu ci ginnaawam yéeféer yi màkk dañ lay dóor dóor yu métti am ci kenn ci ñoom ndeysaan ñuy dóor saxaaba yi rek moom kenn du ko dóor mu ñëw ne waaw man est ce que man dëgg dëgg dëgg dëgg man jullit laa la moo tax sama mbokk yi ñu leen di dóor man dóoruñu ma benn nijaayam boo xam ne yéeféer bu mag la woon mais waaw maaka dañ ko ragaloon ci ginnaawam la nekkoon ne ko maa tax mu ne ko lu tax mu ne ko maa toog ci keppaaru kaag bi gars yi toog man leen sama jarbaat bi ku ko laal di nga xam mu ne moo tax gars yi moom lu la neex nga def gars yi duñ la laal mu ne ko nañ dellu foofu ci gars yi fa nga ko waxe woon nan dem mu ne lan la mu ne nan dem ba yegg rek moom ni jaay ñu ànd ba yegg mu ne kii lan la leen waxoon ñu ne dana woon moo la garanti bu la kenn laal mu ne ko bis ni ki tey garanti bi na wax mu deñ naa ñam li sama mbokk yi di ñam nijaay ji xool gaa yi gaa yi xool ko ñu ne nijaay ji loo wax mu ne deñ na rek benn waaye ni ku tël bët bi toj daal di tuuru mu téye bët bi ndeysaan bët bi du sotteeku nijaay ji ne ko gis nga gis nga li ma la waxoon mu ne ko wallahi bët bi tuuruwul mi ngi ñee bi tuuru ci yoonu yàlla kooku lan la waroon ke rek di yuuxaa ndeke ñoom ba ñu yaakaaree ne bët bu tuuru bi dafa perte ndeke waa ji dafa bëggoon ñaari bët yëpp tuuru ndeke bët bi tuuruwul mi ngi ñee bët bi tuuru bi moo tax ñooñu kenn munta xeex ak ñoom abu jahlin ndeysaan bi mu utee pexe màkk dóor rey génne lakk dagg gars yi ne keng mu ne ayu unaasin uhaarib man ñan laay xeexal ayu unaasin uhaarib man ñan laay xeexal ñii est-ce que ay nit lañ non ay nit lañ mais dañoo dañoo gis dañoo ñam lu nit ñi ñamul ñu gis lu nit ñi gisul ñu xam lu nit ñi xamul wallahi ay nit lañ woon du hasard borom asamaan ak suuf di leen dagg muhammadu rasulullah walladina amanu maahu ashidda ala alkufar ruhamaau baynahum gis nga ashidda la yàlla wax ala alkufar waaye bu dee seen biir rek nga defe ne gars yi ay muus lañ ndeysaan waaye dara darul jàkkaar nañoo yéeféer yi ah nga gis usuud ay gaynde usuud usuudun alal aada nga gis ay gaynde waaye dara desul seen biir la danga naan ñii est-ce que mën nañoo mën nañoo war fas noonu la leen yàlla bindee woon kon kii xeex ci yoonu yàlla mbokk yi amul pertement xeex ci yoonu yàlla amul pertement gis nga pas-pas bi su ko julli di gëmoon kon islamisé nañ monde bi wala d'accord leen su julli di gëmoon jihaad ba tey waaye maa la sax comme julli dañuy organiser ay colloque sax naan jihaad jeex na ci kaw suuf jihaad amatul dégg ngeen barki démb Sisi ki coup d'état Égypte lan la wax nee na alxuraan daf ci am ay versets yoo xam ne day yàq dundu nit ñi dañ ko war a dindi. fi mu nekk nii kaamil yu bees yi ñu traduire français ku am kaamil bu bees tradition français bu yeboo nga xam ne baaxul baaxul. tradition yu bees yi baaxuñ yépp dafay falsifier aaye yi te xam nga lan mooy danger bi mooy bu ñu gënee dem ba ci kanam tradition yu normal yëpp dootuñu ko tiire ndax nee na yooyu mooy def julli di terroriste fi mu nekk nii Europe dañoo am problème boo yaa ngi génn université yi di dem di dem Syrie di xeex yi tubaab yu xonq yi laa wax de waxuma yu ñuul yi tubaab yu xonq ci nga xam ne seeni maam yëpp ay yahud lañu ak ay nasaraan tey ñoom ñoo nekk ay julit di gedd Europe di dem Syrie di xeex di bokk ci Daesh waxuma leen ngeen dem xeexi de waaw dama leen di jox message ay message laa leen di jox waaw waaw misaal laa leen di jox wan leen ne dafa am loo xam ne su ko nit gëmee xam ko kenn dootu ko mën a téye ci yoonu yàlla kenn dootu ko mën a téye du alal du kër gu rafet du du du du du ñun li ñu yaakaar ne fii loolu la déedéet parce que waa Sénégal dañ leen a nax wanuñu leen diine loolu tax yenn saa yi booy wax ak ñoom diine dañuy jommi dañuy yaakaar ne waaw kii moom lan xanaa la du lu muy wax nii lan la kii lu muy wax nii parce que foofu lañ toll ñun xeex dafa bokk suñu diine dafa bokk suñu pas-pas dafa bokk suñu deret mu ngi nii ci téere yàlla bi alxuraan ñaata ba qaatilu moo ci nekk mbokk yi alxuraan ñaata ba qaatilu moo ci nekk wa qaatilu lu muy teg mooy raay leen wala nelaw leen wa qaatilu li muy tekki mooy xeex leen xeex leen xeex xeex nag du lu ndaw de te yàlla moo nu ko wax ñeenteel bi ñuy jàng ci aaya yi laa yamnau lmumin min aljihaadi xawfu aadaihim waay waay yow jullit yow ki gëm yàlla ragal noon yi bu mu la teree xeex yi ragal noon yi xoola borom bi kañ la waxoon wa iddu lahum mastataatum min quwa na ngeen préparé force na ngeen préparé noon yi force suñ ne force nag léeg-léeg kenn yaakaar ne force mooy mooy lan ah mooy dama war a dem entraîner ji quoi ba ma am doole ci sama yaram waaw loolu ci la bokk de waaye préparer leen force ci xam-xam préparer leen force ci alal préparer leen force ci matériel guerre préparer leen force ci nombre nit préparer leen force boo xamante ne da ngeen leen koy won terroriser leen te pourtant loolu la yàlla da ngeen leen terroriser ba buñ leen ñemeeti ba bu ngeen jaaree ci yoon danañ leen bàyyi. xoolal Siin Siin xam ngeen lu fa xew bu démb ak tey ak barki démb ku woor ñu dogloo la fal force waaw fal force ah jël ay policier jox leen ndox. ku ngeen gis muy julli daawoor na naan am na gars yu bëri dañ leen génne Facebook ñu leen di ñett di leen naan loo fal force gis naa koo xam ne ci Facebook bi tey ñeenti policier ñoo ko téye daaneel ko ñiy jàpp ci tànk yi ñiy jàpp ci loxo yi ñiy xoj ko di ko naan loo loolu loolu ban ban ban àdduna la ne France boobu muuroo ñu dindi sa kol wala booy dem jàkk ñu fiise la ne terroriste nga boo utee boo ut liggéey doo liggéey te Europe ku fa dem nekk jullit da ngay am problème ah foo tourné tey ci àdduna jullit yi la ñu siñ fang jullit amatul liberté am na yenn avion yoo xam ne sax boo amee sikkim booy tukki dootu ci yéeg wala boo yéegee da ngay gis ku ñëw du dend ak yow même kaar yi kaar yi wala métro yi da ngay toog nga gis benn waay ñëw fii la war a toog ne du ne du toog pourquoi parce que da nga am sikkim wala da nga am muuru tey ci Facebook bi gis naa paa boo xam ne dañuy taal sikkim bi dugg nga tey agité naa ko gis nga ko boo demee nga xool ko ay xa- ay ay xale di ay xale ñoo ñëw jàpp paa bi dina day taal sikkim bi di ko waaye sa sikkim bi di ko saboté yor briquet quoi naan ko dañ koy taal paa bi ne leen taal leen nii la def booy bi taal sikkim bi loolu fan la bokk ci lan la bokk te tey li ñuy def jullit yi bu ko jullit yi defee ñu ne leen lan li ñuy def jullit yi su su jullit yi fayoo lu ñuy wax ñi ay terroriste lañ ñi ay islamiste lañ ñi ay ba ay ay ay ñi ay ñi ay ñi ay bu jullit ñu toogee ñu leen di nongatu di leen rey su jullit yi fayoo ñu takk leen ay ticket est-ce que mas ngeen gis ay jullit di xas Isa di ko dessiner di ko diaboliser fan ngeen dégg loolu ci àdduna wax leen ma ko jullit ñi di xas Isa ibnu Maryam wax leen ma ban pays ngeen ko dégg kenn yëkkateegul loxo de wax leen ma ban pays ngeen dégg ñuy xas Moussa ibnu Mari ibnu Imran amu fenn déggu leen fenn jullit di xas Daawud waaw est-ce que déggu leen ay jullit yuy xas Muhammad déggu leen ay dëkk yuy xas Muhammad waaw lu tax ñii duñ tontu dégg ngeen ko la déggu leen ko du jeex dessiné Muhammad lan moo indi woon problème mu France bi fan yële problème mu Charlie bi du ñoom Charlie ñoo doon dessiné yonent yàlla Muhammad di ko tooñ kon xoolal dessiné ku toll na yonent yàlla Muhammad waxuma sax yonent yàlla Muhammad waaye man mii sama papa rek ku ko dessiné woon ñëw sama kanam ne ma kii sa papa la dinaa xeex ak yow wala xanaa ba nga dessiné ko muy ko rafet muy mu mel ni mu war a mel kon de dinaa kontaan ni la macha allah waaye sa waaye mën nga dessiné de ñu ne ah mu ngi nii de waaye ma ne man la am daal lay neexal waaye dessiné ko mu nekk benn mike am ngandu sikkim biir bi rëy mu kaalawu nganda kaala kaala bi ñu def ci ay bomb ñu ne Mouhamed a ngi nii waaw dama ne wax dëgg yàlla loolu tooñ la wala du tooñ waaw dañoo romb ñëpp ñëpp lañu romb romb ñëpp dem ba ki gën a kawe ci lislaam ñu koy tooñ jullit duñ tooñ dañ leen di tooñ rek suñu fayoo nag mu metti comme ñoom ñoo yor média yi ñu commencé di wax waaye jullit ñi musuñu tooñ jullit ñi musuñu indi xare ci kaw suuf jullit ñi dañoo muñ màkk muñ màkk muñ màkk fukki at ak ñett ñu toxoo màkk di midin yonent bi génn xoolal fa la juddoo màkk fa la yaroo fa la màgge mais mënu fa am jàmm yàlla ne ko génnal mu génn dem Médine loolu moo ko indil Médine tey soo demee tey nga fekk bàmmeel bi Médine nga fekk mu tëdd Médine moom ak Aboubacar ak Umar yëpp Màkka lañ juddoo waaye Médine nga leen di fekk ñu tëdd lu tax parce que waa Màkkaa leen génnee yéeféer yee leen génnee bi l'islam commencé fayu nit ñi commencé wax naan l'islam jaasee ko tasaare jaasi moo ko indi ci kaw suuf lu waral loolu yëpp mooy ñun dañoo jàngul jànguñu diine donte ne ay jullit lañ xamuñu culture islam xamuñu siira yonent bi alayhi salaatu wasalaam looloo tax tubaab yi lekk suñu bopp yi ñoo def ñu ay tubaab yoo xamante ne bu ñuy xeex diine ñun suñu bopp ñoom ñooy ñun ñooy njëkk a xeex suñu diine ñun suñu bopp waaw ñu ëpp ci ñun dañuy mbubboo diine mais gëmuñu ko dañoo ñàkk pexe rek xamuñu fuñ jëm waaye bu leeroon ci ñoom ñaañ rek léegi ñu daal di wane fu nu far léegi te suite mbokk yi ab julit ragal noon yi bu mu tax nga bañ a xeex li anna quwwatuhum min quwwati shaytaan xanaa yëgoo ne noon yi seen kattan yépp doole seytaane la du doole yàlla xoolal ñaari xale yooyu rek indi woon problème bi France ni France tollu yëpp tiital nañ France keroog wala ah ni France toll yëpp tiital nañ France xoola benn la den benn nit état Amérique ñaata état la 52 di wër benn nit di xeex ak moom benn nit ah benn nit kon su jullit ñëpp nekkoon benn la den lu muy tekki ah mbokk yi 52 état di xeex ak benn nit Oustaz ah 50 50 50 50 50 50 état di xeex ak benn nit kon bu jullit ñëpp meloon ne waa jooju luy xew mbokk yi luy xew su jullit ñëpp meloon ni waa jooju mel ah, benn nit tere leen nelaw ba seen président di daw ñu koy nëbb toog 24 heures kenn xamul fu mu nekk ñu koy nëbb benn nit ñu ñu sax naan bu mu génn ci télé yi ndax buy wax day joxe ay signe dafa dangereux bu mu wax ñu éliminer ko télévision monde bu yëpp image am génnatul su génnee kenn du nekk kenn du kenn du nelaw mu terroriser leen benn nit kon su jullit yëpp meloon noonu nag hmm? benn nit allahu akbar moo lay wan ne jullit doole bu mu àndal doole yàlla la lu dul loolu seytaane la Afghanistan mujahidin yi ñoo lay nettali nee nañ dañuy tiim am na soldat yoo xam ne dañoo dem tuub nee na ñoom li leen tuubloo ak li leen jaaxal ñoom dañuy yor ay bomb xoolal riche xeex na ak Afghanistan huit ans nee nañ dañuy toog bomb yi di sotteeku nga gis ñuy reetaan bomb ñu wër na leen ne avion bi ay bomb la ñuy reetaan di ree ay bomb ñoo ñëw gars yi di ree te xam na ne bomb bu dalee ci yow te gars yi bomb yi leen di sànni du yu ndaw de allahu akbar mais xoolal ay xale yu ndaw ay jigéen ñooy dékk bomb yooyu amul daw huit ans ñuy ge- ñuy guerre ak riche ba ne ko xëy na ko jullat ci suuf daaneel ko Union soviétique tas dooleem yëpp foofu la jeex Afghanistan Amérique songu leen fu mu mujj ñibbi daw mu nga Somalie gaa ngi nii Somalie Afrique gii la nekk shabaab yi ngeen di dégg Amérique dafaa dem ñu dóor leen rey leen bay diri seen soldaar yi ci mbedd yi filmé ko adduna bi yëpp di ko gis def leen yaramu neen ba léegi image yaa ngi des li may wax ni yëpp seetaan ngeen ko ci télé yi ci la Amérique jógee naan dootuñu envoyé soldat muy dem léegi ay avion pilote avion yoo xam ne amul amul ci lañ commencé léegi dootuñu dem di yónni seen i soldats yi ci dëkk yi ne nañ dem parce que nee nañ guerre yi amul leen intérêt kon image yi leen mbokk yi jullit yi su fekkoon ne xam nañ seen diine kon islamisé nañ àdduna waaye maa la sax tey fi ñu toll mooy sunu diine ji lu bare bare bari dañ ko dañ ko réeral dañ ñu ko yàqal dañ ñu ko nëbb ndeke bu kenn gis naan ay nucléaire ay bombe atomique ay nangam nangam déedéet wallahi borom iman moo mën borom bombe atomique borom iman moo mën borom bombe atomique mujahidun yi am na ci ñoo xam ne gars yi dañ leen di dóor ubbi ñu ne ko rajtee ko teg ko ci suuf wala ñu sànni leen ubbi bu ubbi daanu seen kaw du tàkk parce que yàlla lañu àndal loolu bëri na ci ñoom ay nit ñoo xam ne bomb dafay daanu ci seen kaw ba pare bomb bi ni tekk ni du tàkk loolu jàng ngeen ko jàng ngeen ayatullahi fi afghanistan téere la jàng ngeen ko kéemtaanu yàlla ci afghanistan gaa yi di ko nettali nii ñi demoon di ko nettali ñi ci ëpp tub ah kon nañ leen bàyyi xel loolu bu kenn dégg li ngeen di gis fii naan doole doole doole wa anna al quwata lillahi doole yàllaa ko moom te ku ànd ak yàlla rek am nga doole te doole yàlla xajul fenn bu kenn gis benn waaye bu buy wax ci diine ñu tëj ko kaso nga daa nga jàpp ne kii alku na wala dañ ko rey wala ñu dañ ko condamné à mort nga jàpp ne perte na ay waay léeg-léeg nga dégg fii sax day am léeg nga dégg benn waay bu la ne waaw da war a changer langage parce que yow borom njaboot nga yaa ngi nii léegi gars yi buñ la fi reyee sa njaboot day tumuraanki léeg-léeg nga dégg ku la ko wax buñ la reyee sa njaboot du tumuraanki ana yàlla xanaa jànguñu inna allazina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا هنا ولا تهزنوا في الآخرة ألا تخافوا مما تركتم من ورائكم من أبناء وأزواج و و و و لا تخافوا loolu àdduna la bu leen ragal ku gëm yàlla jub dee bu mu ragal njaboot gu mu bàyyi ginnaaw yàlla moo ci teg loxo allah taxaafu wala tahzanu bu leen am naqar fa ngeen jëm parce que yàlla moo leen di teeru bu ngeen ñëwee mu dugal leen firdaws kon perto waaye pas-pas yi moo leerul ci ñun pas-pas yi leerul ci ñun mbir yi dafa des lu bare bare bari amuñu istidaad bi préparé wuñ ko amuñu yaqiin bi amuñu kóolite bi amuñu conviction bi suñu digganteeg suñu boroom yay gis gaa yi nit ñi bokk na ci nit ñuy tiitalaatee defar ay arme ay soldaar ay dàll ay tenue gis gis nga maskaw da ngay gis gaa yi jël ay ban jouer ay film wane ay doole yoo xam ne boo xoolee rek nga ni si ñii ñii moo ñoo mën ci àdduna bi ñii ñu ñii fekk loolu armée carton la amee armée carton xam nga kii dem di xeexi di jooy day dem xeexi di jooy yenn saa yi sax mu bañ a dem ñu jàpp ko fal force dugal ko ci oto bi nuroowul ak ki nga xam ne buy dem day fóon doomam fóon jabaram jabaram di sara xolle di yuuxu di sara xolle waa kër gi tàccu mu takk ne leen maa ngi dem aljanna gars yi def ko feet parce que dafay dem di xare ji kooku nuroowul ak ki nga xam ne buy dem day jooy yaayam di jooy papaam di jooy waa këram yëpp di jooy jabar yi di jooy doom yi di jooy parce que même moom bëggut a dem ah du benn de nuróowul du benn wallahi du benn yàlla moo nu wax ci alquran wala tajidanna ahrasa nnaasi ala alxayaati ñan la ah nan lazina ashraku ku bokkaale du bëgg dee kuy bokkaale du bëgg dee mukk mukk ci àdduna waaye kuy jaamu yàlla day bëgg dee bis bu nekk loolu tax saxaaba yi ku demoon xare deewoo soo ñëwee ñetti fan yëpp doon normal ndax da ngay poser sa bopp question waaw man lan moo tax deewu ma lu tax ñëpp dee man deewu ma est-ce que man gëm naa yàlla kon aaya yooyu la ñuy jàng tey waaw fan yi moom bu yaba ngeen xam ko de du man maay wax nag aaya yi la téere bee wax balaa gars yi ne am na imaam bu nekk fii di former booy te ay terroriste du man de aaya yaa ngi nii bu dee du bu dee du aaya yi rek wax leen borom bi subhanahu wa taala nee na bismillahi rrahmani rrahim falyuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata addunya fil bil akhirah ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والوالدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا برم بنينا فليقاتل واي واي نخيخ واي allahu akbar ci lan la ñuy xeex ndax sunu sunu intérêt sunuy bànneexi bakkan ndax sunu réew ndax sunu mbokk ndax sunu mbooloo ndax ndax ndax ndax déedéet yàlla mun a fal yu qootil na xeex na ngeen xeex fi sabilillah ci luy kawel kàddu yàlla lépp lu tax ngeen di wax na fekk muy kawel kàddu yàlla su ngeen di dox jéego yi na fekk pour kawel kàddu yàlla su ngeen di jëf na fekk pour kawel kàddu yàlla su ngeen jëlee seeni ngànnaay di xeexi na fekk yàlla rek moo tax fi sabilillah yàlla loolu la wax de xeex leen ci yoonu yàlla fal yuqaatil fi sabilillah ñan ñooy xeex ci yoonu yàlla mu ne allazina yasruuna alxayaata addunia ñi nga xam ne dañoo jaay seen àdduna sabilillah xeex ci yoonu yàlla mooy lan al tariq almawsula ila ilaai kalimati llahi taala bi an yubada wahdahu wala yudtahat muslimun fi diinihi wala min ajli diinihi ñetti mbir moo tax ngeen war a xeex ci yoonu yàlla ñetti mbir bi ci njëkk mooy ngeen fexe ba libérer suuf si bu fi xërëm nekkati wa qaatiluhum xata la takuna xata la takuna fitna wa yakunu diin kulluhu lillah loolu du aaya yàlla nee na na ngeen xeex ci yoonu yàlla ba bokkaale dootul am fitna mooy bokkaale na ngeen xeex ba bokkaale bu mu fi amati garab yi gaa yi di benn waaye mu ne wóor na yàlla gis nga su ngeen dof dof loo ba ñi nekk Mali ñëw Sénégal dañuy toj bàmmeelu sëriñ si wala wax ji ni mu grave loolu mooy lan xam ngeen lu tax ñuy wax loolu mooy bokkaale moo baaxul ab julit warul raay garab ab julit warul raay xeer fii fii la wàññi leen ko du foofu de salaamaaleykum fii la ci suuf wàññi ko dugal ci suuf nga wàññi ko wàññil foofu waaw su ko defee Hmm? baax na wàññi leen foofu su ko defee mbokk yi baax na noonu bàyyi ko ñu xam ne programme la yàlla moo nu sant na nu libéré suuf si ndax xërëm day tax nit du jaamu yàlla xërëm day occupé sa xol fii wàlla yàlla waroon nekk fa la xërëm di toog li nga waroon defal yàlla xërëm bi daf koy détourné nga koy defal di màggal xërëm di raay ay xeer di raayi garab di raayi sijaada ah di raayi moket lu kenn xamul di takk ay lam di takk ay petaaw ay xaaw di rendi ginaar di sangoo deret ji di rendi xar di sangoo deret ji am ay xàmb di tuuru di sangoo soow dem ci armeel yi di jël yaxu néew yi loolu la islaam di bañ moo tax bu lislaam sampoo lépp luy bokkaale da ko fiy jële lépp luy tax nit ñi di bokkaale da koy jële fii ñu bëgg bokkaale nag du ñu bëgg loolu jóge fi ñu bëgg bokkaale du ñu bëgg loolu jóge fi waa ji tabax fi benn armeelam gaa yi ñëw di sànni xaalis ci armeel yi armeel bi du bëgg ku toj armeel bi nekki fi tëdd ak nit ñi ñoo yem du ko nangu du ko nangu de ñaata nit tey ci Sénégal ñoo mënta jaamu yàlla ndax bokkaale te bis bu nekk ngeen gis ko teg ci seen bët te kuy bokkaale boo dee da ngay dem safara te ñun ñëpp xam nañ ko jàng nañ ko ci alxuraan ay aaya yu ne weng la leer nañ ak ay hadis mais mal asaf soo waxee ñu ut fu ñu la dëkkal waaye nag ku ci yeboo bu yeboo nga yeewu ku dee yàgg sa bàmmeel ku topp riiraay mi mbumbaay mi dafa ne mooy dëgg ba nga bañ a waaye bàyyi bokkaale bu nit ñi di bokkaale nga topp leen ci seen bokkaale yooyu billaahi boo dee ba dugg bàmmeel di nga rëcc li nga xam ne yàlla moo yor programme bi waaye du nit ñi kuy bokkaale boo dee doo texe bokkaale yàlla du ko baale moo tax lislaam di ñu sant lépp loo xam ne day tax jullit ñi du ñu dem ci yàlla mu ne nañ ko fi dindi gis nga même kër gi ñu def photo nga xam ne boo nee tëll rek photo bi na ne kërëj sa kanam sa xel am ci lu mu dem photo boobu dañ ko war a dindi foofu amu fa place photo amul place ci lislaam waxuma la ñu koy takk ci ay saal waxuma la ñu koy wénk léegi ci buntu kër yi mais da ngay gis ku ko takk ci dënnam wala gisu leen ko yéen ku dox ak photo nekk ci dënnam photo bi kenn waxu la bul bëgg waa ji nekk ci photo bi ah kay mun nga ko bëgg bu baax la bëgg ko waaye nag amoo droit takk ko yonent bi kan la doon takk ci dënnam wax leen ma ko ah Aboubacar bëggoon na yonent bi wala bëggu ko kan mooy tontu acca bismillah Aboubacar bëggoon na ko wala bëggu ko bëggoon na ko est-ce que bi yonent bi génne àdduna Aboubacar takk na ko ci dënnam Omar bëggoon na yonent bi wala est-ce que bi yonent bi génne àdduna Omar dem na wuti benn photo yonent bi takk ko Oustaz bu bàyyi jamono jooju amul ko doon.
jamono amul photo fa laa jëm da nga defe ne dama nekk damay arrêté dama dama fi mu nekk nii damay barastiku de maa ngi ñëw ci tali bu am laalo laa nekk damay gili sa ba ma yegg si ci kaw laa jóge rek ndax affaire bi mën a yomb Imam Malik bëggoon na yonent bi wala bëggu ko ah bëggoon na ko ban photo yonent bi la doon takk El Hadji Omar Fouti sénégalais la wala du sénégalais ah bëggoon na yonent bi wala bëgg ko ban photo la doon takk yéen tukulóor yi wax leen ma ko ana ñu tukulóor fii El Hadji Omar hol photo o haɓɓanno e becce makko kaale o haɓɓino photo nelaaɗo ha voilà Cheikh Ahmad Bamba de ana takka photo wax leen El Hadji Malick de ana takka photo kala du ngeen di ma ne boobu photo amut de voilà fa buhita allazi kafa xërëm la julli du takk photo julli du takk photo ak yeneen ak yeneen yu ci bokk lépp loo xam ne da lay gàllankoor sa diggante ak sa borom teg ko fële kenn wax la bul bëgg ku baax ah kay da nga koy bëgg ku baax dañ la sant nga bëgg ko ku baax sa mbokk la waaye nag dafa am place fu mu war a yem baax na trop waaye dafa am fu mu yem waxuñu la nga jël ko yéegal ko ci kaw yonente bi waxuñu la nga jël ko def ko yàlla sa nit lu mu baax baax baax boo ko bëggee def yàlla léegi mu yàqu neɗɗo ma ko moƴƴi moƴƴi ko fof sa yiɗimo wadde allah joni bonnama a nani a nani on pular on nani on pular ayo sa nit lu mu baax baax baax yemal ko ci baax soo ko bëggee def yàlla léegi mu yàqu borom bi nee na na ngeen xeex ba jële fi xërëm waaye na ngeen xeex ba tax jullit yi dañuy am liberté jullit yi ñemee mën a dund seen diine tey bokk na ci ñi ñuy xatal ci kaw suuf jullit wala même sunu réew mii ñu nekk même ci sunu réew mii xoolal chrétiens yi démb leen fi ñëw ubbi fi ay école ne ku muuru doo fi jàngee ñoom sax dañoo am ay loi di di ñu exiger ñëw sunu biir dëkk di exiger waxuma la dara waaye jullit yi ñàkk fayda yi jullit yi nga xam ne àdduna lañ gëm parce que seeni doo seeni seeni seeni nu mu tuddati intérêt doomu dund ëllëg pour sama non sama doom dama ko yóbbu ci benn école boo xam ne pour avenir am quoi pour avenir wala nga jël sa doom dem yóbbu ko ci benn école catholique na jàng am na benn jigéen boo xam ne ci benn école catholique bu nekk fii Guédiawaye fa la yóbbu xale bi mu def jardin d'enfant ñetti année petite moyenne grande ñett la ñett yi jeex mu yóbbu ko mu def CI CP mu nekk ñaata at ah mu nekk 5 ans xale bi def C1 C2 mu nekk ñaataat école bi ubbi xale bi ñëw ñu ne ko école bi fees na yaay ñëw ne day jàng fal force kii jàng na fi huit ans kenn du ko fi jëlee fal force day jàng gars yi dem kaw dem suuf mu ne leen fi ñukk fekki làbbe bi Dakar fexe ba làbbe bi recevoir ko fexe ba làbbe bi defal ko lettre na dem ci directeur école boobu damay bañ a wax tur bi su demee nañ jël xale bi lu ko fi jar te nga bàyyi école yi jullit yi soo ko waxee lu tax nga def lii mu ne samay avenir u doom léegi nag xale boobu ëllëg màgg mooy ñi ngeen di gis fi bu julli jotee bon soo ko ne kaa julli mu ne non non lépp benn la grawul quoi parce que yooyu lañ leen di jàngal parce que xam nañ ne duñ la mën a génn ci l'islam mais dañuy fexe ba defal la nga nekk mauvais musulman li Senghor waxoon Senghor pape bi da ko ne woon waa Senghor yow chrétien bu mag nga yaag sa jabar mu ne waaw waaw ñu ne ko doo fexe ba Sénégal ñëpp nga def leen ay chrétien mu ne mënuma ko mais dinaa fexe bañ nekk mauvais musulman mooy jullit yi ngeen di gis rek jullit bu yor butéel sàngara naan laa ilaha illallah ah jullit bu gëm ne musique bi ci la bokk jullit boo xam ne gëm na ne sabar bi ci diine bi la bokk ci laa ilaha illallah bi la bokk yàmbaa bi ci la bokk njaaloo bi ci la bokk ah lépp ci la bokk xool Sénégal da ngay mel ne soo ñëwee Sénégal da nga naan dara araamul waaw te ni ñu mel fii nag noonu la ñuy dem fu ñu dem noonu la ñuy mel yu araam rek la ñuy dëkk lu araam dama daan xuloog paay bi ñu demee màkk nga gis ku añ màkk kuy akolaat jigéenu jàmbur ay aja ñu fekkee ne ngeen di déwén mu mu mu mu xanaa aji bu leen ah dañoo aj kay waaw yéen nuyoo rek araam na ngay akolaat ah waaye ustaas nag ustaas am nga yoo xam ne mënuñu ko bàyyi nag loolu loolu wuti màkk loolu koy di akolaat jabaru jàmbur akolaat jëkkëru jàmbur ba màkk loolu koy di sow lañ sant paa yooyu ñu jëpp sow ak saar ak caam lañ sant fal yuqaatil na ngeen xeex pour libérer jullit yi nga xam ne dañ leen di néewal doole dafa am tey ci àdduna bi jullit yi ñuy néewal doole xoolal Palestine yéen ñii ñëpp toog fii ci biir jumaa ji ba ngeen juddoo ba léegi yéen a ngi fekk Israël di dóor Palestine dëgg la wala dëgg bi ngeen juddoo yéen ñi toog fii ñëpp nag génnewuma ci kenn paa yi ci biir jumaa ji sax ci lañ bokk ba ngeen juddoo ba léegi Israël mu ngi dóor Palestine voilà boobu ba léegi combien de musulmans palestiniens ñoo dee ñaata lañ kenn mënu ko wàññi te ba léegi mbir maa ngi continuer te ba léegi doo gis jullit ñi mbir mi metti leen xoolal Irak ñaata la fa américains yi rey ci ci musulman Irak xoolal Afghanistan xoolal Syrie tey daanaka dëkk bi yëpp jeex na xoolal Somalie dem leen Tchétchénie Burma wax naa leen fi démb jullit ñi dañ leen di saaf comme ni ñuy saafee beñe Burma mooy Birmanie dañ leen di saaf comme ni ñuy saafee beñe loolu fan lañ ko teg loolu rek tax na ñu war a xeex pour libérer jullit yi nga xam ne dañ leen di néewal doole loolu bokk na ci la war a tax ñu xeex beneen bi mooy dañu war a xeex pour lan li ajli diin ngir diine yàlla bi tabaraka wa taala mu kawe ndax diine nekk ci kaw pourtant ñun ñoo bañ a xeex de waaye ñëpp dañuy xeex ci seen diine ñëpp a ngi xeex parti politique yi sax dañuy xeex ngir falu wala ah d'accord ngeen loolu parti politique yi sax dañuy xeex ngir jël réew mi wala wala waaw ñun nag duñu xeex toog rek ba waxee ñu ne waaw te li garaaw ci Sénégal mooy defa ne wallahi defa ne moo tax yenn pas-pas yi ku ko am bu yow nga xam ne gëmoo yàlla am na ñu gëm ci Sénégal yenn sëriñ yi ñoom bi ñu fi ñëwee xeexuñu diine ji dañ ko tasaaree ci jàmm lañ ko tasaaree ñoom xeexuñu léegi nag yow boo gëmee ne yonent bi dafa xeexoon diw xeexul kan nga wax moo ëpp doole tukulóor yi dañ koy wax pas-pas bu bon naan onon ngandi annabi nu kanko de ko allah nel nde allah nelimo nde ko rewe makko ko heewani laana kono ƴeewe ƴeewe daadi wax benn tur kanko ko rewe makko ko hay goto annda no foti mo wakko coolo kam tukulóor yi dañuy wax yéen tukulóor yi da ngeen di wax da ngeen di wax ne yonent yàlla nu li ko toppoon feesul gaal ah ñu ne nu li ko toppoon feesul gaal ñu ne waaye diw nag li ko topp kenn xamul nu mu toll waay cëm waay léegi luñ bëgg a wax foofu kopp doole kopp doole diw moomu te te nuux yonent la te xam ngeen waxuma nuux yonent la waaye nuux mooy seyxul mursalin mooy doyen prophète yi ulul azmi min ar-rusul bal sax gars yi dañ naan nuux mooy première mooy deuxième aadama monde aadama bi mu alago ñi judduwaat ñëpp nuux moo leen jur dégg ngeen wax bi ah nuux mooy deuxième aadama aadama mooy premier nuux mooy deuxième monde aadama bi leen yàlla alagee ci tuufaan ñi judduwaat nuux moo leen jur kon nuux mooy deuxième aadama ba pare nuux mooy seyxul mursalin mooy doyen prophète yi ulul azmi min ar-rusul nuux mooy pee ñu bëgg a ñàkkal fayda nuux ndax benn nit ñu ne nuux bi ko yàlla yónnee li topp ci moom feesul gaal waaye diw dey moom moom de kenn mënul compter li ko li li ko topp loolu mooy diw moomu moo gën a foor nu loolu ku ko gëm yéeféer nga doo jullit ndax yàlla moo wax ci alquran ne yonent yi yi yàlla tudd ci alquran ñaata lañ vingt cinq yonent yëpp yàlla tudd seen tur ci alquran vingt cinq lañ yonent yëpp seen lim cent vingt quatre mille la vingt cinq la ci yàlla tudd ci alquran vingt cinq yooyu cinq la ci yàlla génn ne ñii ñooy supérieur mooy ulul azmi nuux la Moussa Ibrahim Moussa Isa Muhammad cinq yi yàlla génn ci kaw ne kii mooy seen chef mooy euh, borom xam-xamu pour le Fouta boobu ñu invité woon fii temps yi passé nu mu tudd ah waaw mu ne nit ñi dafa am ay star star yi mooy yonent yi mu ne ci biir star yi dafa am super star wax na dëgg mu ne ci biir super star yi dafa am dafa am lan super super star mooy Muhammad super star yi ñooy ulul azmi star yi mooy cundu gi rek star yi ñoo gën a foor ñu di star super star yi ñoo gën a foor star yi ah ñooy ulul azmi min ar-rusuli waaye léegi nu ñu mën a waxee ulul azmi min ar-rusuli benn benn waay boo xawee ne ne fekkewul jamono sahaaba yi fekkewul taabiin fekkewul sax taabi taabiin ñu ne moom moo gën a foor non est-ce que yéen nit ñun normal nan est-ce que ñun xam na nun li ñuy def ku yàlla wax turam ci alquran nu koo xam ne yonent bi bi mu demee laylatul isra wal mi'raj da ko fekk ci benn asamaan mu toog ñu ne kenn fii Sénégal moo gën a for kooku yéen xool leen li ngeen di wax ak li ngeen di def ku yàlla wax laa wax koo xam ne yonent bi dafa dem laylatul isra wal mi'raj yonent bi gis na Moussa wala gisu ko gis na Ibrahima wala gisu ko ah gis na Yaxya ak Isa wala yonent bi juróom-ñaari asamaan yi mu dem yëpp dafaa fekk benn yonent yonent boobu recevoir ko cëm sallallahu alayhi wa sallam yi ñun ñu reer fii suñu cere ba suur rek daal di jël benn waaye rek yéegal ko ci kaw loolu musiba la nan delluwaat wax yi wax yi nañ ko jubal kon ñett yi ñoo tax ñuy xeex yàlla nee na fal yuqaatil xeex leen fi sabilillahi ci kaweel sama yoon allazina ak ñi nga xam ne yasruuna alxayaata addunia yabiuuna dañ koy jaay is yutlaq ashira ala albayi aydan mu ne dañuy firee njaay dañ koy firee njënd njënd ak njaay la su njëndaamee rek njaay day am mooy albay wa shira sunu borom subhanahu wa taala la wax loolu la ñu wax mu ne borom bi mu ngi ñuy digal mu ngi digal way gëm yàlla yi lan yabiuuna dunya nañu jaay àdduna li yafuusu bi axiratihim ngir ñu gañe ëllëg alaxira mu ne wal muminuuna xaqan ñu am gëm ñu am ngëm dëgg fa yuqaddimuuna amwaalahum dañuy joxe seen alal wa arwaahahum talaban lil fawzi bi daaril axira ngir sàkku lan kërug alaxira ëllëg ngir sàkku ngërëmal yàlla tabaraka wa taala wala borom bi ne na ngeen jaay àdduna alladina yashruuna alxayata addunia lan la ñuy jaay àdduna mooy bil axira alaxira daf ñuy gënal àdduna waaw gis nga nit ñi saa yoo gisee nit alaxira gënal ko àdduna rek dundam àdduna day jag dundam àdduna day tranquille dundam àdduna day teey dundam àdduna day dal dootul am problème mu àdduna lu tax parce que àdduna taxatul mu jóg gis nga xam ngeen ñun tey lu tax ñu am problème parce que àdduna leen gëm fi mu nekk nii ñun ñu toog ñëpp ku nekk luy sa projet maa ngi jàng quoi yéen ñiy jàng après ma ñëw ci gars yi man damay jàng mais gis nga gaañ bu ma génnee ingénieur laa bëgg a nekk kii ne nangam laa bëgg a nekk waaye yow damay dem fële jënd benn gàlle boo xam ne booy jënd benn 4x4 boo xam ne waaye takk benn jabar joo xam ne tey tooy rek di waaye damay ko waaye non mais après sax dama bëgg a am bourse dama bëgg a am lan non du ma liggéey sax Sénégal non li ma bëgg a yor ci alal non gars yi non toog rek di di gént quoi wala ñeneen ñi nga xam ne jànguñu moom da ngay gis ñooy saan ñuy jugu ci gaal yi ñoom Barça wala Barsaq nga gis ñeneen ñi ne oh bàmmeel bu sori rek wala alal ju bari rek wala bàmmeel bu sori maa ngi dem de ñu ne foo jëm nga ne alal ju bari rek wala bàmmeel bu sori loolu yëpp bu ñu diine jaralool noonu ngeen defe ne kon diine ji du samp tey loolu yëpp li ko waral mooy bëgg àdduna rek alal ji ngay uti loo koy dee looy dee alal ji dama leen di laaj ñi ngeen gis ci Sénégal ñu am alal yëpp lu ñu koy doyee tiitaru rek kenn du ci liggéeyal yàlla ñu ci bëri doo ci gis ñu tabax jàkk ñu ci bëri doo ci gis ñu defar daara ñu ci bëri doo gis ñu defar hôpital ñu ci bëri duñ ci defar ay teen ñu ci bëri duñ dimbali miskin yi gaze rek waaw takk ay lamu or ay kii jaagar jaagar yi yor fële fu mu yegg si ñu ne diw ñëw na ndeysaan li waa ji wax bokk na ci li tardeel Sénégal mooy tardeel borom xam-xam yi su borom xam-xam tukkee ne tëll ñëw benn mbër làmb ne tëll ñëw nit ñi ci ku ñuy dem wax leen ma ma joxe benn misaal ah su saal ay saal ne woon fii tëll ban mbër moo dëkk géejawaay bala ngay ne fii tëll nit ñi ci ku ñuy dem ah kan moo ëpp nit du ngeen tontu waaw ci biir ci jàkk yi sax gars yi dinañ génn waaw dañuy génn de yenn saa yi fii ñuy tafsir làmb am nga gis ku dégg daal di xaw a génn ku ku daan ñu ne ko diw daan mu ñëw toog daal di ñëwaat toog fekk laajte na ba xam ku daan bi war a ñëw toog léegi xelam dal na ñëw toog di ree nag dañuy génn ba pare laaj di gars yi neen ragal yàlla c'est que àdduna moonu nax quoi danoo dem ba àdduna dafa toog frenkulaay suñu xel yi ak suñu xol te ab julit su ko àdduna jiitalee rek dootu mënu jaamu yàlla su bëgg àdduna jiitalee rek da ngay dugg ci giraawaay dugg ci ay njaaxum ay criminalité xoolal temps yi li ngeen di dégg ci ci Sénégal ci ay alal ñi ñu jàpp kaso yëpp alal la wala kaso yi Sénégal ñi ñu fa jàpp genn wàll gi yëpp lan la alal lundi damaa seeti woon Karim Wade de ngeen baal ma nag waaye ba mu fa demee gis naa fa benn waay boo xam ne dafa détourné camion wu essence camion Shell yi ah citerne yi la détourné ay 13 millions xoolal loolu rek ñu jàpp ko moo gongaaram yëpp dóor ci kaso bi ma fekk fa sama benn xarit di ko seet këram day daw boo fa demee ña génn wàll gi ña fa nekk ñëpp alal moo leen fa dugal alal kenn dugg fa ndax da ngay julli wala kenn dugg fa ndax da ngaa woor kenn dugg fa ndax da ngaa yem ci li nga moom jub kenn dugg fa ndax da ngaa maandu loo loo fa dugal da ngaa ñàkk a yem ci li nga am bëgg lu bëri rek bëgg lu duun ñu ne la kirip sànni ci kaso bi yow bu fekkee diine islam rek ak lu nga dunde loolu yomb na waaye saa yoo bëggee nag yegg foo yeggut sol loo amut war ci loo amut dëkk fu kenn dëkkut war lu kenn warut tëdd fu kenn tëddut lekk lu kenn lekkut naan lu kenn newoon mel nu kenn menut problème ñëw na loolu ngeen gis même jigéen ñi mënuñu am diine c'est parce que xale bu jigéen boo ci gis bëgg na yor portable boo xam ne xale jigéen yi kenn amu ko bëgg na sol yére boo xam ne xale jigéen yi kenn solu ko bëgg na léttu léttu yoo xam ne kenn léttuwu ko moo tax problème xale jigéen yi sax mënuñu am diine koo ci gis am na 30 far 30 sax dafa tuuti xale bu jigéen boo joxal danaan la man sama xol bi dama ko photocopier waaw photocopie laa def waaw nii laay def taf taf photocopie xam ngeen photo xol bu ñu photocopie loolu koy ëpp na 30 kon waaw boo jëlee benn photo benn xol nga photocopie ko njaga njaay ba mu fees ku ñëw nga jox ko benn suñ la ne original bi nag nga ne mu ne eh, original bi maa ngi ko téye am na ku ma koy jox léegi ñooñu mu jox photocopie pour lan la pour am ci ñoom dara am ci ñoom dara am ci ñoom dara dajale jënd dara wala di leen noggatu waaw ñoom tamit ñu nekk ay nag ñi bàyyi seen ndey ak seen baay nekk sàmba alaar di jënd fële ay dibi fekk seen papa sombi lay reere ak mbaxal bàyyi seen yaay yi ñuy lekk ay sombi ñuy jëndal xale jigéen ñi ay dibeeg ay pomak booy nañ dem bêche doore quoi bêche bêche soo ngoonee boo taxawee fii xale yi xale yi góor yi jigéen ñi ñu ngi takk ay écouteur wàcce seen tube yi ku nekk langal kap ànd ak ñaari sindax yi jigéen bàyyi sa ndey ak sa bàyyi fële ñu tumaraanke ñu ngi war ba ngoon amuñu lu ñu ndogoo mburu mu ñu lekk sax amuñu ko nga nekk fii di di di jënd ay ay dibeeg ay bonbon ak ay ay nangam te ñi ci ëpp seen papa yi bu ñu leen ne waaw dañ daan roy non papa temps yi dara neexul dara neexul yaa ngi neexal fële te ki ngay kooku doo ko takk day lekk sa alal dem yoonam ngay xëy ñu ne la maye nañ ko mu naan la sama doomu nijaay lañ ma mayeeg nga bañ naa ba sonn nag nga feebar fee juróomi fan génn dem sa yoon perte sa alal wala loolu ca la lañ ko teg xanaa xamuleen ne nit ginnaaw yàlla ndeyam ak baayam ñoo fi sës amul keneen nan toppatoo sunu ndey ak sunu baay wallahi képp kuy toppatoo ndeyam wallahi day dugg aljanna wallahi jàng leen diine wallahi kuy toppatoo ndeyam ak baayam day dugg aljanna wallahi ku am ñaanu ndeyam ak baayam du torox mbokk yi billahi wallahi wa taalahi ku am sa ñaanu ndey ak sa baay doo torox est-ce que xam ngeen lool est-ce que xam ngeen lool ah waxuma leen ay waxuma leen ay hadis ay yonent de ay ay alxuraan de lu ñu dund fii laa leen di wax man dund naa ak benn waaye boo xam ne dafa dóoroon papam mbëkkal ko miir jëbi toj papa bi dee baalu ba- baaluwu ko tuubul mu am problème instant yi may wax ak yéen dafa am problème mi ngi liggéey mais mënut a am dara mënu am dërëm te mi ngi liggéey fu moo ko gis mu ngi ñaan paas falaa jëm mu am problème am problème am problème am problème balaa papa ji dee papa ji dafa woo jabar ci ni ko gis nga yërëm naa la de yow xale bu jigéen bi dama laa yërëm xale xale bu jigéen ne ko lu tax mu ne ko gis nga ñii takk la famille bii nga dugg mu ne waaw mu ne ko duñu tekki te paa bi wax na dëgg de famille lañ woon ñëpp a torox mu ne ko sa jëkkër ji nekk ci raw yërëm naa la nag ndax xam naa di nga sëy ak moom am ngeen njaboot waaye di nga sonn yow ndax kii su fekkee maa ko jur te njaalowuma ko ma jur ko ci farata ak sunna mu def ma li may def mettit laal ma di ma toroxal kii xaw ma àllaaxira de waaye àdduna moom dina torox paa bi après paa bi dafa génn àdduna waa ji am ay problème am ay problème am ay problème nekk ci problème guddi bëccëg ci lay fanaan ci lay yenn mën na xëy sax dem Dakar dox ñibbi si du am paas lu ko dellu si ndax sonn jabar ji xool ko mu sonn jabar ji ne ko xam nga nooy def da ngay dem armeel yi baalu sa pap da ngay dem armeel yi soo demee ci armeel yi fi ñu suul sa pap xam nga fa nga baalu mu ne ko foofu gëj naa fa dem mu ne ko kañ mu ne ko buñ ko suulee mu ne waaw mais demal rek côté ba xëy na boo demee ba léegi tableau baa ngi fa waa ji daal dem wër armeel bi ba sonn mënul gis armeel bi mu daal téléphoné benn xaritam ñu ko xam nga sama armeelu papa fu mu nekk mu ne ko waaw man vendredi bu nekk su ma fa demee su ma demee ziyaara sama papa dinaa jaaraale sa armeelu papa defar ko mu ne ko man maa ngi ci armeel yi instant yi est-ce que doo ñëw woon ma ko mu ne ko non ñëwal suñu kër suñu añee ba pare ma yóbbu la comme man maa ngi dëkk ci rue 10 bi ñëwal boo añee ba pare ma yóbbu la nga dem ziyaara ji ko waaye daal di quitté armeel yi ñëw yendu ci foofu añ ba pare ñu ànd ñoom ñaar 5 heures ñi ñëw ñoom ñaar gisuñu armeel bi waa ji armeel bi réer ko waaw te waa ji nee na ko vendredi mu nekk ma defar ko waaye ñëw wër armeel ba sonn gisu ko gisu ko armeel bi a leen réer waa ji may wax ak yéen fi mu nekk ni tas naak ndaw si bi ma ko yëgee ma daw bëgg a nekk sapeur pompier pour sauver ko sauver sëy bi femme bi ne ma 13 ans laa sëy ak moom 13 ans 13 ans yëpp damaa souffrir kii kay pare naa ci parce que papa am waxoon na ma ko papa am waxoon na ma ne dinaa torox su ma nekkee kii te nag torox naa ndax gàddu naa sax sama kaala dem Tiwaawan di yalwaani ci ndax rek lu mu lu ñu dundee te waa jaa ngi liggéey moo tax ku ci ku ci tooxal sa ndey ak sa baay wallaahi balaa ngay dee fi nga koy gis ba pare su la ñeneen jàppaloo seen seen bopp nga bàyyi sa ndey ak sa baay. di nga torox balaa ngay dee ku yebo sa ndey ak sa baay nekk sa xarit ku yebo balaa kenn lekk dibi balaa kenn lekk pom ak banaana balaa kenn nga jëndal ko jus d'orange mu naan ñëkkeel sa ndey ak sa baay bu ñu lekkee ba pare nag keneen nga dem jox ko desi di mu lekk dégg ngeen li mu wax de waaw borom bi nee na wa man yuqaatil fi sabilillah képp ku xeex ci yoonu yàlla fa yuqtalu ñu rey ko aw yuxlab wala ñu gañe ko ah aw yaxlib wala ñu gañe ko fa sawfa nu'tihi ajran azima dinaa ko fay fay bu rëy waaye xool leen texte yi aaya yi nuñ demee yàlla dina waman képp koo xam ne yuqaatil dafa xeex ci lan fi sabilillah xeexul ngir intérêt xeexul ngir kër xeexul ngir mbooloo xeexul ngir jabar xeexul ngir doom dafa xeex ngir diine diine yàlla dafa xeex ngir kawel kàddu yàlla ngir islaam ba mu xeexee ñu rey ko ndeysaan fa yuqtal ñu rey ko allahu akbar aw yaxlib wala ñu noot ko jël ko tëj ko kaso wala ñu def ko leneen yàlla nee na bu leen yaakaar ne ñooñu ñaar dañoo perte déedéet waa ji buñ ko reyee pertul suñ ko gañee pertul lu tax mu ne fa sawfa nu'tihi ajaran azima bu yàlla yemoon ci ajaran rek doy na yàlla ne waa ji dinaa ko jox fay bu yàlla yemoon foofu doy na waaye ban fay azim kon lii la gaa yi gëmoon démb moo tax kenn mënut a taxaw seen kanam saxaaba yi kenn mënul woon taxaw seen kanam kenn kenn amul woon amul te xool ngeen jàng ngeen histoire amr ak rustum maarukatu qaadisiya ñëpp jàng nañ ko rustum bi mu wooloo julli nii kenn lañ ko yónnee kenn la ko amirul muminin yónnee waa ji bu muy dem mbaam la war xeej la yor allahu akbar daf ko ci ginnaaw war war mbaamam ñenn ñi ne fas la war cukkur cukkur yi ba ñëw ak kaala gi yére yu weex ak amaama bi ak xuff yi allahu akbar ak tubéy bu gàtt bi ak sikkim bu gudd bi yéen ñi sëq kawar bi ko rustum ne waa yéen lan moo leen génne lu tax ngeen di xare nii te rustum balaa muy ñëw dañ ko defar ba mu rafet tegal ko piliyaanu or tegal ko mbax ne or lal ay tapis rouge armée yu ñëw daal di koy wër pour lan pour na wane doole bu waa ji ñëwee na tiit su delloo mu ne ah li ma gis ñee attanuñu leen de dañ leen deltu ginnaaw ñama fekk fee looloo tax ñu préparé buur bi rustum général bi waaye amr bu mu ñëwee li mu njëkk a def mooy tapis rouge bi ñu lal ca la jaaral mbaam mi gars yi ne ko lii nag mu ne yéen a ma woo de fi ngeen bëggul ma ñibbi gars yi ne ko waa demal ñu tegal ko benn piliyaanu or ndeysaan mu daal di ñëw toog ci laa toog ci suuf gars yi ne ko fii lañ la pare mu ne man fii laay toog parce que dañ ko bëgg a jënd di ko won adduna ay piliyaanu or ak ay nangam ak léeg-léeg ngeen ndeysaan gis ja waajoo xam ne lim lay jaay mooy oto bi mu wàcc wala mu lay jaay portable bi mu yore wala mu lay jaay montre bi mu takk wala yooyu yëpp amul njëriñ amul benn njëriñ wala mu lay jaay li muy reere wala li muy añee wala li muy naan loolu fu muy mujj duus wala foofu lay mujj de duus amr bi mu xoolee yëfu àdduna yi ko gars yi bëgg a jaay bi mu ñëwee ci suuf la toog Yusuf ne ko lu leen génne lii leen lan moo tax ngeen di xeex mu ne ko ji na li nuxrijakum min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad dañoo ñëw pour libérer leen libérer nit ñi ñu bàyyi nit ñi ñuy jaamu ñu jaamu yàlla mu ne ko ak lan mu ne li nuxrijakum min diiqi dunya ila siati al axira da ngeen nekk ci àdduna bu xat da leen a bëgg yóbbu ci alaxira gu yaatu gi mu ne ko ak lan mu ne ko min jahimil maasiya ila jannati taa ne leen di génne ci mooy yàlla gu metti gi ngeen nekkee ñu yóbbu leen ci àjjana ji nga xam ne topp yàlla rek moo fay dugal nit moo fa nekk rustum ne ko bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag allahu akbar waa ji daal di dugal loxo bi ci poqataanu gauche bi daal di jàpp ci boppu jaasi ji daal ne ko karaas ci mbar mi mbub mi mu dugaloon jaasi ji mu xoos ko ci weñ bi yëfi daal di yuuxu de kar mu daal ne ko ne ko nii mu ne suñu leen wooyee ñu bañ kii mooy nekk suñu digganteeg yéen rusum daal di tiit di gestu di xool soldaar yi mu am naan nii mu gis waa ji ni mu ñemee moom kenn di wax wax ji suñu leen wooyee ngeen bañ dee rek da ngeen di dee mbaa ñu dee mu ngi nii mu ne ko xanaa yaay amiru gaa yi mu ne ko yow boo gisoon Xaalid xaw ma foo jëm yow boo gisoon Xaalid ibnul Walid wala nga gis Ali ibnu Abi Talib la ilaha illa allah xoolal Omar buuru Room dafa dégg turu Omar mënul nelaw ba mu yónnee man duub na dem xooli kan mooy Omar ah nu ñun xamuñu li ñu am ñun léegi dañuy noppi topp ci Messi Messi mais booy Messi gis nga Messi est-ce que yéen xam ngeen kan muy Messi Messi mooy ki gën a bañ jullit ci kaw suuf tey xam ngeen loolu est-ce que xam ngeen ne Messi bu amoon doole rey na jullit ñi ci kaw suuf yëpp xoolal ni ko jullit yi bëggee Messi salaire am da koy xaaj ci digg bi di ko jox Israël pour Israël di rey waa Palestine yéen xamu leen loolu xoolal ni ko jullit di Sénégal bëggee ah voilà xoolal ñun ni ñu bëggee caaxaankat yi am na fi ñoo xam ne tey boo leen waxoon yéen équipe ñoo doon football fan yi coupe de coupe coupe bi yéen équipe la Barça ak ban ak ak Juventus ah am na fi ñoo xam boo leen waxoon léegi tegal leen ma classement Barça ku teg classement Barça ma may la portable bi kon portable bi léegi ma perte ko am ñoo xam ne boo leen waxoon wax équipe bi Barça ak équipe bi ñaata jour la non ñii dem ñii dem ci terrain bi onze yi am ñoo xam boo leen waxoon limal ma limal leen ma onze sahaaba onze sahaaba ñu ne la Aboubacar nga ni waaw ñu ne la Umar nga ni waaw waaw waaw déedéet imam dafa imam maa ñu ne la El Hadj Omar Fouti lañ lay wax El Hadj Omar Fouti damaa ragal waxtu bi ñeneen ñi quoi El Hadj Omar Fouti moom kooku moom sama maam la mun naa wax loolu. ah, xoolal onze sahaaba suñu waxoon tegal onze sahaaba nga teg onze barça billahi billahi wallahi taalahi balaa ñuy am onze sahaaba timis dana jot inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu topp di duufal loo xam ne amul benn njëriñ xoolal bars mars barça passé na ku jël coupe bi barça moo ko jël yéen ñi faroon barça lu ngeen ci am fii est-ce que waa Barça sax xam nañ ni yéen yéen a ngi dund yéen ñi faral Barça fii ci Sénégal laa wax est-ce que waa Barça xam nañ ne yéen exi exi inandore existe ngeen yéen yéen a ngi dund yëgaluñ ko seen yaram sax. te léegi dégg naa dafa am carte xale yi sax dégg naa dañuy carte ci football boobu ah di carte los di carte lu réew mi nga dem ñu ne équipe bi mooy gagné nga teg xaalis. boo gañee ñu jox la léegi nag gars yi dañuy gañee lu duun amul perte de loolu yëpp pour lan la pour détruire diine ñu ñàkk loo xam ne amul bopp amul geen ñu fàtteloo ñu sahaaba yoo xam ne wallahi terewoon nañu nelaw àdduna ñu fàtteloo ñu ñoo xam ne terewoon nañu nelaw àdduna ci doole ci xam-xam ci lépp ci lépp ci lépp laa wax tey rek la julli di yaafuus mais démb ah jullit danaan siggi jullit bu daan dox ci digg mbedd mi lay jaar jullit bu daan dox du geestu tey rek ngay dox triste yaafuus yambare nëpp funax doo ñemee sax siggi ne man jullit laa bal sax da ngay nëbbu ne ab jullit da ngay ñëw naan bonjour au lieu nga ne asalaamaaleykum ndax complexe borom bi nee na xeex leen ci yoonu yàlla maa ngi leen di yëgal ne waman yuqaatil képp ku xeex fii sabilillah ci kawel kàddu yàlla fa yuqtal ñu rey ko aw yaxlib wala ñu noot ko gañe ko pertul fa sawfa nu utiihi xal seet naa koo indil xal seet naa koo jox ajaran fay aziman bu rëy bàyyi leen xel aaya bi fu mu jeexee aaya bi fan la jeexee yàlla nee na ku xeex ci sama yoon lan laa lay def danaa la fay fay bu rëy borom bi nee na wamaa lakum waaw yéen lan moo leen dal ndeysaan borom baa ngi wax ak ñun de gars yi teg leen baaraam ci aaya boobu wamaa lakum lu leen dal laa tuqaatiluuna du ngeen xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla lan moo leen dal ba ngeen ban a xeex aca lii nii lii de la gars yi di bañ ko ko jàng tey wax naa leen amaana ku ko déglu léegi ci jàkka ji daan ne kii buñ ko toppee réew ñu taal bomb ci dëkk bi waaye man waxuma ko lii waxu yàlla la wala wa maa lakum lan moo leen dal laa tuqaatiluuna du ngeen xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla wala sax wal mustadcifiina min arrijaal ngeen dem libéré ji jullit yi ñu noot nekk ay góor ñu noot leen di leen noggatu xoolal Guantanamo tey jullit ñi dañoo waroon takku dem Guantanamo tëj ko libéré jullit yi génne leen kaso bi gën a bon ci àdduna ñan lañ fa tëj tëju ñu fa ay chrétien de tëju ñu fa ay yahud de tëju ñu fa ay animiste lan lañ fa tëj ay jullit yoo xam dañ leen jël yóbbu leen ba ci ginnaaw géej tabaxal leen foofu benn kaso même boo rëccee ñoom duñ la dàq boo rëccee sax duna la moo tax boo fa newee jarul ngay rëcc jarul ngay def dara da ngay toog rek am na ñoo xam ne de léegi mënatuñoo siggi ndax kaso yi ñu leen tëj mënuñu siggi mënuñu siggi même bi ñu leen génnee sax mënatuñu siggi ñenn ñi mënatuñu taxaw kaso boo xam ne ci métit am ñoo xam ne fi ñu leen tëj fi ñu leen dugal bi ñu leen tëjee ba pare dañu ubbi benn espèce robinet bu ndaw mooy toq seen bopp di def taf di def toq ay gut day daanu ci bopp bi tëf tëf tëf nii di daanu gis nga bu yàggee 24 heures bi xam nga nu muy mel première bi du day sedd deuxième bi day sedd mais yeneen yi ñëw yëpp benn bu dal bu ne day mel ne immeuble lañ daaneel sa kaw su fa waaj a jógee day dof day perdre mémoire day dof te ndox la xoola mbugal yooyu ñu natt pour di ko mbugal ay jullit ñenn ñi dañ leen a pikiir nekkatuñu ay góor dañ leen a pikiir rey ngóor a ci ñoom te terewul gars yi boo leen gisee ña ngay jàng alquran ña ngay julli wallahi maa gis américain bu tuub te foofu la tuubee te ñeew yi ñu tëj ñoo ko moo tax léegi dañuy def nii weer wu nekk rek ñu jële ñu yóbboon indiwaat ñeneen ndax ku fa dem gars yi tuub loola ndax da ngay gis ñu leen di mbugal mbugal yoo xam ne bu ñu paree léegi dellu ci seen borom di jaamu yàlla duñ ko sax yëgal seen yaram loolu moo leen di wan ne même bu dul dara sax tey ay jullit xoola Birmanie ni ñuy def foofu jullit ñi jullit ñi waroon nañoo dem am na benn dëkk fii Centrafrique du Centrafrique la xoolal jullit yi dañ leen dañ leen a génne ci capitale bi capitalu Centrafrique amatul jullit te bokk na ci xeex bi ñu xeex jullit ñi Centrafrique jullit du jàng école jullit du am bulletin de naissance jullit du liggéey ci gouvernement bi jullit yi xam loolu fexe nekk ay commerçant ba daa di monopoliser xaalisu dëkk ba parce que commerçant yi ñoo yor alal ci ñu xam ne def nañ musiba to ñu dellu léegi delluwaat xaalis boobu jullit yoroon ñu koy nangu loolu mooy indi xeex bi di lakk jàkka yi rey jullit yi non am na ci yenn image yoo xam ne boo ko gisee Facebook doo doo nekk doo nelaw guddi man moo tax gars yi dañ ma koy envoyé mais du ma ko sax xool boo ko xoolee wallahi doo nelaw guddi image yooyu ngay gis journée bi yëpp ci ñi rey yoo xam ne sa yaram day daw di leen rey rey yu bon France dem fa ñu yaakaar ne France day àtte xam ngeen France lu mu def xam ngeen France lu mu def dem fexe ba nangu armée jullit yi nangu arme jullit yi daal dem ci ñeneen ne leen nangu nañ armée yi ñii armée wu ñu dem leen noonu lañ France def de bi soldaaru Tchad yi xam nga ay jullit lañu défendre jullit yi ñu ne soldaar ci àdd yi dañuy sot nañ leen fa génne loolu moo indi woon waa Centrafrique di xeex ak soldaaru ci àdd yi parce que soldaaru ci àdd yi dañ leen tudd ñu ëpp ñu ñu jógee musulman yi nekk Centrafrique ci àdd la ñuy déparé di ñëw ñu demee takk fa jabar jënd kër nangam nangam mujj fa dëkk mu tax population bi mujj nekk jullit yu bëri moo tax am na histoire yuy xew suñ ci dul xam dara même ñooñu ngeen dégg ñu naan Boko Haram ñu bëri tey dañ leen diaboliser di leen xeex di wax nangam ak nangam fekk xamuñu lan moo nekk ci biir fekk xamuñu lan moo tax ñii di xeex fekk xamuñu même li ngeen di dégg fi yenn saa yi Palestine nga dégg benn xale bu def bomb ci oto wala benn xale bu exposé dara mais xale bu ndaw bu toog bis ci biir néegu yaayam papaam di seetaan télé bomb ñëw hélicoptère tiim ko lancé bomb ci kaw kër gi kër gi lépp moñoxoo ñëpp dee kër gi màbb ci kaw nit ñi ñuy génne di génne ba for xale bi muy dund xale boobu di màgg di màgg bañ woon ko image yi ne ko xoolal seen kër xoolal sa papa ak sa yaay sa papa ngi booy forom photo bii xoolal sa yaay xoolal sa rakk yi xoolal sa sœur yi xoolal sa frère yi nii la dëkk bi yëpp nii lañ leen reyee xale boobu bu gàddoo bomb dem dugg ko ci oto ndax dafa tooñ dafa tooñ ah kooku lan mooy nekk ci xelam mooy man foog ma fayu moo tax am na lu ñuy gis tey ci àdduna bi bu ñu xool tey rek nañu bàyyi xel lan moo xew ba lii am gars yi nee nañ saa yoo gisee yàpp dafa am lu dee kon bul gis yàpp rek daan ne yàpp yàpp waaw ñu wax nga ni yàpp yàpp rek déet xalaatal li dee ba pare balaa ngay am yàpp lan moo ko rey lan moo tax ñu rey ko aha loolu mooy wax ci fii boobu la ñuy nekk ay nit boobu la ñuy nekk ay nit ñu normal mbokk yi loolu sax dafa sori am na ay événement yu am ci àdduna bi yéen waa Sénégal da ngeen di fàtte histoire rek mais bu ngeen jàngee histoire ngeen xam ne yahud ak nasaraan liñ def ci àdduna bi ci mbon ci criminalité kenn xam nu mu toll yéen waa Sénégal seen i maam demuñu woon France guerre yi ah ba ñu demee ba libéré France ak Allemagne nan la leen français yi def bi ñu leen indee caaro yi hôpital kii baa ngi foofu di armée yaa ngi foofu nga dimbali nit xeex ko ba gañe ko ba gañeel ko mu ñëw war laa fay mu ne da ngeen a bëri mënu ma leen fay ñooñu ñëpp ñu dóor leen ay bomb ñu dee ñu dem gas ka armée li caaro yi suul leen armée yaa ngi fa wala ngeen fàtte loolu avec ça nag ñu ne tey kuy dem Europe ñu lay mettital te ba ñu sonnee Afrique lañ ñëw ba Hitler sax da doon wax ne bu doon du nit ñu ñuul ñi mel ne ah bu doon nit nit ñu ñuul ñi dañoo bëri ba mu yaakaar ne nit ñu ñuul ñi duñu dee dañ doon dee mais dañoo bëri mu ne bu doon du nit ñu ñuul ñu mel ne ay jinax ñeme ba mel ne ay gaynde kon dinaa dugal ci France ci 24 heures ci butéel loolu Hitler doon wax falal tey soo nee da ngay dem Europe nekk nit ku ñuul loolu lay wax jàpp nit ñi ñuul ñi dinañ toroxal te démb bi ñu leen di toroxal nit ñi ñuul ñi ñoo demoon libéré ji leen voilà bu ñu fàtte histoire mbokk yi sunu borom ne wa maa lakum lan moo leen dal laa tuqaatiluna du ngeen xeex fi sabilillahi ci kawel kàddu yàlla wal mustadifiina ngeen dem libéré ji ñi néew doole mina rijaali ci góor ñi wan nisaa ak jigéen ñi am na jigéen ñoo xam ne ci àdduna bi tey dañoo sonn ñu ngi leen di noot ak ay góor wal wildaan ak ay xale allazina ñoo xam ne yaquul na ña nga naan rabbana yow sunu boroom axrij naa génne ñu min haadihi l qarya ci dëkk bii muy màkka azalimi dëkk bi nga xam ne dafa tooñ ahluha ay ñoñam li màkka la màkka la amoon ñoo xam ne mënuñu mënuñu gàddaay amuñu woon doole sahaaba yi gàddaay mais ñooñu mënuñu dem ñii dañoo néew doole xamuñu yoon wi ñii dañoo néew doole amuñu kàttan muñu mënuñu dox diggante màkka ak Médine ñenn ñi ay jigéen lañ ñenn ñi ay xale ndaw lañ waaye nag ñoo ñëpp ay jullit lañ yàlla ne yéen sahaaba yi lan moo tax demu leen ngeen xeexi ak waa Màkka pour libérer ñii foqarti leen ci seen loxo yi kon loolu moo lay wan ne jihad dafa war di am chaque jour bu ñu yëgee ne quelque part ay jullit a ngi fa ñu ngi leen di néewal doole yeneen jullit yi dañoo war a dem libérer ji jullit yooyu mais tey luñ ñu gëmloo mooy bu ñuy dóor waa Sénégal waa Mali yéen seen yoon nekku ci yoon na ngeen nëtt bu ñuy dóor waa Mali yéen waa Mauritanie seen yoon nekku ci bu ñuy dóor waa Mali yéen waa Gambie seen yoon nekku ci noonu la li ña- nag yi nag yi nag yooyu ñeenti nag yi ñi ngeen di jàng ci tilaawa ñan ñoo jàng fi tilaawa ñeenti nag yi nag bu weex baag bu xonq baag bu ñuul ba ak bu gel ba loolu ñu naan bu gel mooy bu jaune ba gaynde gi dafa nekk ci dëkk bi rek ci àll bi su bëggee lekk nag yi rek nag yi daal di arrière ñoom ñeent mu xam ne bu songee nag yi bu ñëwee du baax mun leen lekk mu fexe fexe ba sonn munu lekk nag yi mu daal di tëral pexe daal di ñëw ci ñetti nag yi ne leen xam ngeen lan moo tax chaque jour ma topp leen bugg leen lekk ñu ne déedéet mu ne bu weex bii fu ngeen nekk bu ngeen nëbbatoo moom laay gis moo tax may ñëw ci yéen su ngeen ma bàyyee ma lekk yéen ñett di ngeen noppalu ñu ne ko demal nga rey ko ñoom ñett ñu taxaw mu dem rey bu weex bi lekk ko mu bàyyi ba ñaari toog mu ñëw ne leen xam nga ba léegi maa ngi leen di gis ñu ne ko lu tax mu ne bu zone bi ñu ne ko demal mu rey ko mu des ñaata bu xonq bi moo des ak bu ñuul bi ah asiraan asalaasa mu ngoog ñetti nag yi ba mu desee ñett na ba mu nekkee ñaari nag ba mu reyee benn bi mu des benn mu des ñaari ba mu ñëwee mu ne xam nga lu tax ma lay gis mu ne ah mu ne bu xonk bi moo tax bu ñuul bi ne ko lekk ko mu lekk ko dem toog ba xiif mu ñëw ne bu ñuul bi yaa ji des de ah kan moo koy dimbali kooku daal di yuuxu daal ne wéy yaa yooyu lekk nga ma ba nga lekkee ñett bu weex ba nga ma lekk ba nga lekkee bu weex bi nga ma lekk loolu la ñuy def loolu la ñuy def ni fi nekk nii dóor ñii ba ñu nooy nepp ñu ñëw ci nii ba ñu nooy nepp ñu ñëw ci ñii ba ñu nooy nepp ba ñëpp daj ay temps yu ngeen doon fàttaliku boobu Afghanistan lañ doon dóor ah d'accord ngeen ñu jóge Afghanistan dugg fan Irak ñu jóge Irak dem fan dem Syrie ñu jóge Syrie barki démb tey ñu ngi fan ñu ngi Yemen gis nga noonu la ñuy def dëkk par dëkk indi ay conflit armée ay nit te armée ñii ah ñuy rey rek dëkk yi ma lim yëpp su bomb di wadd kan mooy dee jullit rek moo fay dee bu dee siyaa jullit la bu dee tijaan jullit la bu dee xaadir jullit la bu dee sunnit jullit la ñoom du ñu perte bomb bi saa yu daanoo jullit mooy dee doomu jullit wala jabaru jullit wala jullit ñoom du ñu perte lan mooy yàqu alal alalu ñan ñooy yàqu jullit yan lan la ñuy toj ay mosquée ah voilà il faut ñu yeewu ci politique yi chaque jour loolu la gars yi naan diviser ah gars yi ne farriq tasut diviser pour nga ràññee loolu mooy qaida bi tubaab yi yor mbokk yi sunu borom nee na am na fa ay xale yoo xam ne ak ay mag ak ay jigéen ñooñu sax ñàkk pexe moo tax mënuñoo génn ca dëkk ba yaquluna ña nga naan rabbana yow sunu borom axrij naa génne ñu min haadihi l qarya ci bii dëkk dëkk bi nga xam ne azalimi ahluha ay ñoñom da ay tooñkat lañ wajal lana yal nag ñu defal min ladunka mu bàyyeekoo ci yow waliyan kuy méngoo sunu mbir ndeysaan ku ñuy dimbali ku ñuy génne ci jafe-jafe yi ñu nekk wajal lana yal nag ñu defal min ladunka mu bàyyeekoo ci yow nasiran ndimbal ku ñuy dimbali ndeysaan loolu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam toogul tëddul nelawul lekkul naanul lu dul mu takk asara alaaf min al muqaatiliin fukki junni om mu dem libéré ji màkk allahu akbar keroog lañ libéré kaaba gi keroog lañ dindi xërëm yi ci kaaba gi keroog la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yor yetam bi kaan bi di joxoñ xërëm yi naan qul jaa al haq wa zahaqa al batil inna al batil kaana zahuqa xërëm yi di xëpp di màbb keroog la bilaal yéeg ci kaw kaaba gi daal di noot keroog la kàddu yàlla daal di tasaaroo ci kaw suuf ñu raxas kaaba gi ba mu set xërëm amatu fi ba fii nu toog keroog la xërëm gëm kaaba gëj kaaba yeneen libéré jullit yi ñi gisul woon seen i jabar delluwaat xale yi seen i papa ñëwul woon jigéen ñi nga xam ne gisul woon seen i jëkkër ñëpp daal delluwaat ci seen i mbokk ah ndeke kon mbokki jullit yi xeex bi dafa war a taxaw ba saa yu islaam amee liber liber liberté loolu la nu suñu boroom wax allazina amanu déglu leen aaya bi gaa yi gëm yàlla yuqaatiluuna dañuy xeex fi sabilillahi pour kawer kàddu yàlla wallazina kafaru ñi nga xam ne ay yéeféer lañ yuqaatiluuna dañuy xeex fi sabili taaxuut ci yoonu xërëm waaw ñi dañuy xeex ngir xërëm am ndam ñii di xeex ngir yàlla am ndam julli di fan lañ war a bokk allazina amanu la yàlla wax de yuqaatiluuna fi sabili la wallazina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaxut jàngoon nañ aaya yi passé lan mooy xërëm lan mooy taaxut moo tax ñi gëm diine ci Sénégal dañoo war a dugg ci terrain bi jàkkaarloog politiciens yu bon yi nga xam ne ñoo yàq réew mi politiciens yi ñoo yàq réew mi ñoo yàq Sénégal est-ce que xam ngeen loolu politique bii ñu politique moo yàq Sénégal moo fexe ba jullit amatul ngor amatu fi kenn amatul valeur politiciens yi amuñu ngëm-ngëm da ngay gis kenn ku ne léegi man socialiste la suba mu dem farak libéraliste yi da ngay gis kenn kenn ne la man républicain la suba mu dem nekk ji kenn xamul ci démocrate yi nga gis kële ne la man gëmuñu dërëm xam nga lu ñu gëm ko wax mu ne man réew mi laa gëm réew mi sa poos nga gëm nañu wax dëgg gëmuñu dërëm loolu nag baaxul ci dëkk ba pare ñoom ci lan la ñuy indi nit ñi mooy ci laïcité ñoom dañuy xeex fi sabili taaxut kon jullit ñi dañoo war a xeex fi sabilillah lépp luy samp kàddu yàlla ñun ci lan war a ne lépp loo xamante ne day tax l'islam ñu far ko ci kaw suuf ñun dañ ko war a combattre waruñu sax négocier ak loolu mais mais tey tey tey tey tey li am ñun ñëpp dañoo lem suñuy bagage toog ci kenn du coowal pour yàlla kenn du coowal pour yàlla allazina amanu way gëm yàlla yi ñoom lan moo tax ñuy xeex yu qaatil na dañuy xeex ci lan fi sabilillah wallazina kafaru way yéeféer yi ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ay yéeféer lañ ñoom yu qaatil na dañuy xeex fi sabili taaxut fi nusrati shirk ci ci lan ci luy dundal bokkaale luy tax bokkaale tasaaroo wa mu naa wa mu saanadatu zulmi luy tax tooñ sax fi wal udwaan ak mbañ wa nasrul fasaadi ak tasaare mbon xoolal tey da ngay gis cigarette dafa am ñu koy liggéeyal pour mu tasaaroo d'accord ngeen njaaloo dafa am ñuy liggéey pour mu tasaaroo dafa am ñuy liggéeyal planning familial ah am ñuy liggéeyal mèche am ñuy liggéeyal sàngara am ñuy liggéeyal lima lu la neex loolu ñooñu ñëpp bu ñu dajoo seen doole kan lañuy xeex dégguma ko de loolu yëpp bu dajee kan lay xeex jullit bi lay tax du nekk jullit ndax lii ma wax yëpp bu ko jullit bi dafay génn ci lislaam wala planning bañ nañ ko ba léegi dañoo lay bàjjanu gox bàjjanu gox jox leen numéro vert sànq may déglu rajo bi waaye ne ndaw si ne ci sutura boo wootee numéro bi rek ci sutura ñu jël la daal lay defal li nga bëgg kan moo wax nañ planning tubaab bi te France ku fa am doom dañ lay dañ lay fay fii Sénégal boo amee doom benn yoon ñaar ñu ne yow yow looy pacc pacc nii dañ koy théâtre sax gis benn waay bu yor kër gu rafet jabar ju set ju rafet yor doom bu set bu rafet oto bu rafet ñu wane benn waay boo xam ne biir bi nii la toll jabar ji set xale ñu ngi ko wër mu ngi ëmb boot fab ndeyjoor fab càmmoñ 30 xale toog wër ko lu ñu la bëgg a wan foofu ñu ne la xoola kii ni mu ni mu ni mu noppaloo xoola kii ni mu sonnee xam nga lu tax mu sonn lu alko doom yee bari lu mu am doom yi lekk ko su ko defee waa ji bu gisee loolu ne fii ba nga dégg dañu bari booy ñaari doom doy na de ñaari doom lu may doyee doom yu bari yow bu ñu planoon yow di nga judd yow mi di planning bu ñu planning moom di nga judd sa papa ak sa yaay bu ñu amoon benn doom rek daal di planning ndax ñun dinañ judd yow sa papa ak sa yaay fexe ba nga xej yow ngay soxor naan keneen du xej dangaa moom adduna bi xanaa jàngoo yàlla ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi yàlla moom moom suuf si olof yi dañ bañ nañ ko bañ na gémmiñ gu xar gu yàlla xar def ci lekk chinois yi ñoo ñu ëpp téeméer yoon dañoo dëkk ba dëkk ci bàmmeel yeeg ndox mi ceeb bi ngeen di lekk fu muy jóge soble bi ngeen di lekk fu mu jóge mboq bi ngeen di lekk fu mu jóge matériel yi ngeen di sol fu mu jóge lépp lu ngeen yor chinois yee ko moom te ñoo ëpp ci àdduna bi lan la leen yàqal yéen Sénégal nekku leen sax lu dul 12 millions xaw ma 13 millions soo génnee fii di dem Thiès rek dëkk baa ngi ne yàmbalang nga gis fi benn waay boo xam ne ñaari doom laam rek ii di dëkk bi neexut man di damay palaaning palaaningal bu soobee yàlla xam nga yàlla ni mu bindee sunanullah sax fil ard mooy kër goo xam ne ñaari nit ñoo fa dëkk bu ñuy xeex ak kër goo xam ne fukki ponkal ñoo fa yeewu alaaxira lañ jëm dañuy mujj tëju voilà soo waxee de loolu sax da ngay gis ay borom xam-xam lañ ci formé soo déggee bu ñuy wax ak di ko daganal sa yaram day daw fekk lépp mbon la soo bàyyee planning ñëwal ci leneen ñëwal ci leneen ñëwal ci leneen ñëwal ci leneen ñu wër jullit yi ak waame waame mbon di leen détruire xoola col gu bon gi tey xool leen col gu bon gi tey lan moo tax sunu doom yi mbokk yi lan moo tax sunu sœur yi lan moo tax sunu jigéen yi mel nii nu mel lan la kan ci ñun tey fi yaa toog ci jumaa ji fekk sa doom bu jigéen wala sa rakk wala sa mbokk wala sa sœur du sol pantalon paccal génn jaar ni ñu ëpp ci ñun fii seen sœur yi dañuy paccal ak seen jabar yi sax nag jàngaloon naa benn mère boo xamante ne jëkkër ji ne ko bis boo woddoo ma wutal la wujj saa yu ma ñëwee damay fekk femme bi sol jiin karaj kaj teg oustaz ñëw nga yow soxna si yow moom lii mooy lan ii oustaz bul dugg ci loolu xanaa xamoo àllaaji lu ma wax ma ne ko mu ne su bis bu ma woddoo daf may takkal wujj te bëgguma wujj mu ne ko waaye mais xawala la ngay xalaat yàlla lim la wax yàlla lim wax ak sa àllaaji lim wax ban lañ war a topp su yàlla waxee sa àllaaji wax kan lañ war a topp waaye da ngay dégg naa man suma sëriñ li ma la wax wala ju te maire laa la wax de maire waxuma la xale yu ndaw yi de maire la ab maire di sol tubéy ma ne ko waa léegi man xam nga nu ñuy def da ngay uti ku la jàngal wala man sama heure moo lay jàngal nga sol lu baax ñëw toog ñu jàng parce que alxuraan la ñuy jàng ah waaw waaw boobu de mun naa ko waaye nag wax dëgg yàlla après su ma jàngee ba pare nag ma ne ko yaa xam sa bopp comme ragaloo yàlla lu la neex nga def yàgg sa sëriñ moo tax deux mois laa fa def arrêté am na benn paa boo xam ne màkk ren ji ngandum lam lam bi mën na 5 kilos moom la takk gars yi ne ma wax doo wax ak kii mu dindi lam bi ma ne leen bàyyi leen ko rek ba bis bu ñuy armal ma ñëw ba ñu moom ne ko góor gi mu ne ah ma ne ko def nga lépp mu ne waaw ma ne ko am na lu des de mu ne lu des ma ne ko lam bi ah léegi lam bi nag loo ci wax ma ne ko lam bi day dañ wala sa aj yàqu mu ne fi lam bi kenn mënu ko fee dindi ma ne ah baax na kay ma woo ñetti ponkal kii jàpp fii kii jàpp fii ñu xëcc kenn ki téye loxo bi gars yi xëcc xëcc xëcc ba lam bi mën a génn ma ne ko waa léegi dindi nga ko mu ne waa dindi naa ko ma ne ko waa léegi bu ñu delloo Dakar mu ne déedéet bul dugg ci loolu nag bul dugg ci loolu de dindi naa ko fii rek nag génn ci waaye wax ma ko wax ju dëgër nag ma ne kii xaaral ma moytu ko moos bala mu may kurpañ xaw ma ndax takkaat na ko xaw ma takkaatu ko waaye baaj bi di jeex di takkaatu waaw xoolal loolu rek ay takk ay lam takk ay gàllaaj takk takk takk takk te yooyu yëpp gàllaaj la loolu yëpp xërëm la ku ci dee da ngay dem safara borom bi nee na am na ñuy xeex ngir diine lislaam am na ñuy xeex ngir xërëm waaw yéen jullit ñi fa qaatilu xeex leen awliya al sheytaan kilifa sheytaane yi na ngeen xeex ak ñoom allahu akbar fa qaatilu awliya al sheytaan na ngeen yëg ne inna kayda sheytaani kaana daifa na ngeen xeex ak kilifa seytaane yi kilifa yi mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañuy dem dët di indi mbon di ko sotti ci réew mi xeex leen ak ñooñu Sénégal dañuy fekk benn ponkal boo xam ne moom mooy réseau drogue bi réseau bi réseau bi mooy kilifa gi duñ ko jàpp de am nga kan la ñuy jàpp kii jaay benn laxas yàmba 500 fi moom la ñuy ñëw jàpp ñu bàyyi ki koy fournisseur bi ki koy jox ravitaillement ñu bàyyi ko ñu bàyyi grossiste bi bu waxee ñu ne yii kii daa am doole kooku lañu war a xeexal ku mag ki ku ngand ki gis nga kooku bu ñu ko éliminé dëkk bi yëpp nekk ci jàmm mais duñ def loolu de dañuy fekk fii ku sàcc kuddu ak paaka ñu lay dóor naan la sàcc di la rey ñu fekk ku sàcc ay milliards il faut kooku duñ ko wax sàcc lu ñuy wax détournement des fonds publics ñeen ñi ne bien bien mal ak bien mal ak i mbokk yi ak détournement fonds xaw ma lan bien public ak sàcc luy différence bi ah benn la mais comme kee kilifa la rus nañoo wax kilifa gi dafa sàcc ñu ne non dafa détourné fonds publics yi ñenn ñi ne non non bien mal ak yi la am waaye yow bu feen feen waaye sàccee fii dàll ci jàkk ji ngeen jàpp ko di ko dóor naan ko sàcc dàll yu njël koy bien mal ak yi la bien mal ak yi la daal di gars yi fekk fii ñuy julli mu sol ko ah du du bien mais ni mu ko amee benn kese la gis nga yàlla lan la ñu wax mooy nañ xeex ak kilifa yu mag yi suñu daaneelee kilifa yi rek dëkk bi ñëpp noppalu mu ne mu ne fa qaatilu waaw awliya as seytaan gis nga képp koo xam ne da ngaa nekk kilifa te jàngaloo nit ñi diine seytaane nga wala yàlla ne nañ xeex ak kilifa seytaane yi njiit yi njiit yi dañ xeex ak ñoom yàlla yemul ci loolu yàlla di lay yëgal ne li ngay gis ci kaw ñu lay wan ay arme ak ay sirène ak ay ay déedéet yàlla ne inna kayda shaytaani kaana daifa inna kayda shaytaan kaana daif seytaane pexeem defal seytaane amul doole len saa nga dégg ku ne seytaane dafa am doole yàlla da koo weddi seytaane amul doole yow yaa ko ëpp doole lan moo tax nga nooy nag yaafus mooy dangaa dëgërul ci yàlla loolu moo tax seytaane napp la mais boo dëgëree ci yàlla seytaane amu mënu laa mënu laa daan jàng ngeen xissa bi waa ji nga xam ne dafa romboon garab ay xale yu jigéen ak xale yu góor di toog di mooy yàlla ci garab gi waa ji am imaan gëm mbir mi metti ko mu ne garab gi suba dinaa ko daaneel xëy rek jël jaaseem songu garab gi fekk seytaane iblis nekk benn nit wéeru ko looy def ni yow mu ne ko garab gi laay daaneel lu tax mu ne ko garab gi dañ ci mooy yàlla dina fi jóge góor gi ne ko ba nga laal garab gi rek ñoom ñaar ñu róofoo sa waay waa ji yenu seytaane ba ci kaw ne ko dull ci suuf toog ci kawam yëkkati jaasi mu ne ko xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral ñu waxtaan mu ne ko lu ñuy waxtaan mu ne ko xam nga yow da ngaa bëri njaboot li nga dépasse sax problème la sa dépasse problème la mu ne waaw mu ne xanaa bëggoo soo bàyyee garab gi bis bu nekk sa njaganaay boo ko yëkkatee di nga fekk 1000 francs nga dolli ko ci sa dépasse waa ji ne ah est-ce que dëgg la est-ce que dëgg la mu ne ko nañ essayé tey léegi léegi fii ñu toog ni demal nga xool waa ji daal di ubbi rek daal di fekk bas loolu gaa yi naan bas bas billet boobu gaa yi tuddee bas nu mu tudd waaw waaye daal ñu ne bas allahu akbar bas ah du loolu ngeen di wax 10 000 5 000 ah 5 000 mooy bas waa ji ubbi rek daal di gis daal ne ah sa waay wax na dëgg de kon kay jeex na chaque suba rek bu jullee rek yëkkati njëganaay bi rek gis billet chaque jour gis billet chaque jour gis billet iblis bàyyi ko ba mu lekk ci billet yi ba doyal ba xam ne imaan bi yëpp rës na iblis xëy rek bloqué billet yi mu ñëw xool rek gisul dara ni ya kii daf may fontoo rek dem takku jël jaas yi jagar-jagar yi ñoo fekk waa ji wéeru sam waaye tegale tànk yi ak loxo yi dëngal kab bi di ko xaar mu ñëw rob bëgg a romb rek waa ji ne saay foo jëm mu ne ko ci garab gi loo koy def dama koy gor ne ko ba nga laal garab gi waa ji ne yee rek ñu songoo sa waay iblis yeen waa ji ba biir bi weex ne ko suuf am toog ci kawam ne ko nee naa la nga bàyyi garab gi dégg nga li ma la wax waa ji ne ko waaw lu tax tey nga daan ma mu ne ko 1000 francs lu tax démb nga daanee la mu ne yàlla bi nga ñëwee ngir yàlla da nga maa daan waaye bi la 1000 francs indee dama laa yenu ba ci kaw dóor suuf parce que 1000 francs moo lay indi kon ku ànd ak yàlla kenn attanu la ku ànd ak yàlla waxuma nga àndantu de waxuma àndantu àndantu waxuma àndantu àndal ak yàlla jàngal histoire ci adduna bi yëpp xoolal ñi ànd ak yàlla fan lañu mujj jàngal histoire yonent yi ba ñu ànd ak yàlla ñu ñëw fekk ay buur ñu toll ne Namrud Firawna Abu Jahlin fan lañu mujje ñan ñoo gañe xanaa jànguleen yàlla mu ne wa antumul aalawna in kuntum mu'minin wa antumul aalawna yéen yéen ay nekk ci kaw waaye dafa am sart de luy sart bi ngeen nekk ñu gëm mbokk yi yàlla nee na nañ jàng aaya bi fu mu jeexee chaque jour bu ñuy firi nañuy bàyyi xel aaya bi fu muy jeexee aaya tey bi fan la jeexee yàlla nee na inna kayda shaytaan kaana daif yàlla nee na seytaan dafa yambare kon ku fi nekk naan seytaane daa am doole seytaane nangam yàlla nee na da ngay fen seytaane amul doole inna kayda shaytaan kaana daifa yàlla nee na pexe seytaane dafa nasax pexe seytaane dafa yaafus yàlla nag ku ànd ak moom mu doy la kon mbokk yi lii mooy darsa tey ñu ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu